ma sol ko nii moo nu solal moo nu solal tey. moo nu solal ne tey mooy décoré séeréer bi te ku ne xam na ko sëñ Muudu Aminta. waaw moom xam naa ni moom. war na tey waaye bu ko sëñ Safa saa. Euh, xam ne laylatul xadri gee ñu jàpp ñu nelaw àjjuma ji. waaye daa indi si ba ci Masaalik. ba Masaalik. waaw daal ne di ngeen ko ñëw sol. sol ko waaw dëgg ndax ndax bis bii ci lañ am lépp sëñ Safa. am na tamit sëñ Xaadim Jaañ lu mu def. dëgg la dina ñëw léegi waaye yow. yow yow yow sa bos parewul. tubaarkalla <laughs> def naa la ko dugg naa la 4 0 tey. <laughs> jërëjëf <laughs> kon ñu bàyyi invité yi ñu nuyoo bu ko defee xam naa ni suñu bàyyi aadama euh, comme moo féetee la di dor ma bàyyi la nga dalal ko mu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñun incha allah suñu maamoor ñépp ngi lay déglu te di la masow di la dalal jàmm di la bàyyi ba yóbbu taalibi Sëñ Tuubaa yi ausubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim aw na ko yaa muhimu وبك نستعين يا من من الناس ما أسمت خير الورى والسدن وأسمت وهب له جملة ما تطر له لديك إنك المختار اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد الفاتح لما قلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق وهادي الى صراطك المستقيم وعلى اهل قدر ومقدر الاسيم سبحان من الجم كل متكبر جبر عن الاستقرار بيائي سوقول الخير الوايد الخار مهت الخير asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Touba TV bokki plateau yi ñu toogal jiital ci nuyoo bi ni ko sëñ Maam Mor waxee ni ko sëñ Moussa waxee sëñ Muntaxa Mbàkke mi sëñ Tubaa ci kaw suuf di nuyu taalibeem bu mag bi sëñ Cheikh Jëmb mi Cheikh Rafal ci kaw suuf ak jëwriñam ya sëñ Fall Fall sëñ Moussa ak fukki bunti bëri funtu fukki bunti kër yi ko fa toog tey xalifa rek jox nañ la loxo sukka la raamal la yeesal suñu njébal ngir bisu tey bu màgg bii di ko def ci mboolem sa ci sëñ Tuubaa yi ak seen waajur ya weesu weesu nag démb lañuy wax waaye ñoom musuñu fee jóg ndax sëñ Tuubaa fekk àddinaa ngi dox maa ngi dox fekk àddinaa ngi fi maa ngi fi kon ñoom jóguñu fi rawatina sëñ Muntaxa Mbàkke li dal yonent bi rek a ko dal téeméeri junni yoroon te ñaar fukk ak ñeent ñaar fukk junni ñeent junni yàlla ni ko xaatimu ni ba yaa jiitu yaa mottali ñu fab téeméeri junni yeeg ñaar fukki junni ñeent gereefe leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa waaye la ko tàmbalee ci yàlla ak Rasulullah ba ci Sëñ Tuubaa ak doomam yu tedd yi sëtëm yi dañoo gën fa lépp sëñ Muntaxa mu yor doole jooju ndax damay wax ni Maamoor ndelaan guy guy toj xeer di ko mokkal bu mellantaan bañ seey bu mu ko bu mu ko romb ndax da koy nappaaje kooku mooy sëñ Muntaxa fi mu ne mooy islaahu daarayni ko baanas li ci moom rek amoo courant du nuyu ni ko suñu saakan waxee xalifa sénéraux yi xalifa tarixa yi kilifay aada yi waaye du nuyu mbakk yi fay boo xam ni dañ ko beral loxo waaw ndax yonent bi daa toog saaba yi toog ñu werante xam-xam a gën ak may ali di cel yonent bi ni ko da nga dul wax am da ngaa xamul li mu ne ko maa leen a xam ndax ku ma ci raw néewu fi te maguma ci it mag niwut ci at ay yéene magab sikkim waaye doo dégg góor gi ci yéene góor gi ci sikkim bi ngay dégg yonent bi loo wax mu ni ko xam-xam akook may mbëggee la ko gën cofee la ko gën mu ni ko nu mu gën gënee mu ni ko noppa ko yàlla waaw kon euh, cofeel moo dugg ci diggante sëñ mbakk yu fay ak bàmba ji ak diine islam ak àddina bi ak réew mi waaw moo yegle ndax masaalik sëñ mu taxawoon na bi mu fi ñëwee ni yetti guddi yi sëñ Tuubaa yi ca Ndakaaru bu njëkk mu yëpp seen xol ngir lañ def sëñ Tuubaa waaye guddi gi ñu ubbee masaalik mbakk yi ne ca bopp ba guddi googa fay na milliards yi guddi googee kon mbakk yu yàlla na fi yàgg te liggéeyam ni ñu ko nangoo yàlla ko ful ba mu bàyyi ko fi ci ay at ak wér ak kartan euh, waaye Mamor euh, ñëw bee gudd rek waaye mbëkk yu fay li daal mag ñëpp ci guddi gii moo dal mbëkk yu waaw waaw ndax euh, maamam bokk nañ suñu sarafaat jëkk defar ci ndar ak hmm? waaw waajuram Cheikh Rafaal ko tudd tudde ko bopp kon ba kii war naa mën lii yàlla na yàgg te gudd fan te yéen ñi nga xay yéene na ci kippaaram saa borom bàyyi leen fi seen sagoog seenum xel te dara bañ noo gàllankoor ci barke Cheikh Rafaal maa ngi jégalu ci guddaay bi. te mu nuyoo mbokki téléspectateur jàkkaarloo moom bisimilah. ndax sama sama nuyoo daa war dugg ñëw suñu aadama rek muy benn nuyoo. waaye kon léegi mënut a ñàkk asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp seen tur day leen fay seen i sant. sëñ bi nuyoo nag am sama cant ci yéen maa ngi di sëñ Cheikh Jëmb Fall. ak mbooloo mbo waa Kër Cheikh yëpp. sëñ bi nag sëñ Muntaxa lay jaay sëñ Cheikh Jëmb rek àgg fa moom. ak murid yi fi yëpp ñu ngi leen nuyu dañuy suñu bàyyi Adama Sarr. su ma ko nuyoo nuyu naa murid yëpp. kii teg sëñ eh, Paata Njaay mi sama ginnaaw. ak mboode mur yi sa ginnaaw yëpp ak sëñ Moussa nag sëñ Mamour <laughs> dina sa xamal daal tey moom eh, ñëw fu ñëw bu ma saa ñëw <laughs> moom ma ko dàqal ndax loolu dinaa ko leeral ca kanam ndax sëñ aaraw mi ma ko bokkal <laughs> mhm. Euh, dinaa jox ca kanam. foofu laa ci yem ba ca kanam wasalaam. waaw ah, sëñ bu ko defee ñu bàyyi euh, Cheikh Massamba. moom sëñ Fallou. waaw lu mu ngi dugg ah, si. waaw waaw tey moom cartonné na gaa yi. waaw waaw moom daa ñëw ci plateau bi tey. Mhm. ñu ngi koy xam nga nag sëñ Fallou daa bëggoon Cheikh Ibrahima. waaw waaw dëgg la. Ah, ok dëgg la. Mhm. Cheikh Massamba. Euh, ni ko sëñ Mamour waxee léegi rek waa Laméra yi nga xam ni ñoo ñëw tey. ISRA bu mag boo xam ni moo nekk fii ci boori stade Amitié. <laughs> Euh, nga xamante ni kilifa yu bari fa la ñuy nekk di xéwloo. Mhm. Euh, ñu ay taalibi Sëñ Tuubaa Cheikh Massamba mi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. Mhm. moom Sëñ Fàllu mhm. di sëriñam di léppam. Euh, nga xamante ni. tey jii mën naa ni moo leen représenté ñoom ñëpp xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. Mhm. Euh, mu nekk kër Sambakan nga xam ne sama mbokk la sama lépp la di PCA. Mhm. Euh, nga xam ne moo représenté waa Ramera yëpp moom la ñuy bàyyi mu nuyoo. Mhm. bu ci kanamee tuuti ñu mën a ñëw ci ñoom. ak li tax ñu ànd ak ñun tey gunge ñu ci guddi nga xam ni. mooy guddi gi maam Cheikh Ibrahima Fall euh, Samba. ñu bàyyi la mu nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi. sant Serigne Touba Xadimu Safa di wax alhamdulillahi rabbil alamin bi nu yàlla mayee nu fekke ba ñëw ci jataay bi fas yéene jël kàddu ñoo ngi leen di nuyu sëñ Moustapha Kane <coughs> di ñaanal sëriñ Mountakha xalif général des murit yàlla bàyyi ko fi ba naal yi mu naanal borom tubaa mu àggale ko ci sagoom di teg ci nuyo bi sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall di teg ci nuyo bi sëriñ Cheikh moom sëriñ abdu Khadir Mbakke ak njabootu sëriñ Touba gépp di nuyu Baye Adama Sarr xam naa moom sorewuñu fi dëkk euh, di leen ziare sëñ euh, Sila ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu. njabootuk Serigne Touba gépp di leen ñaanal tawfeex ak taysiir di balu àq ñëpp ci koor gi di baal àq ñëpp di ñaan yàlla mi borom njëgal mu ko ah, di nuyu di nuyu sëriñ Omar Jaxate ah moom sëriñ Amsatu Jaxate nga xam ni euh, ginnaaw boo xamante ni ñëw nañu fii ci turu le PDG de l'amiral Serif Mbaye Dione ak euh, personnel bi nga xamante ni mooy waa restaurant l'amiral ah may PCA bi représenté fi directeur général bi muy Chérif Dione muy restaurant boo xamante ni mi ngi en face Léopold Sédar Senghor di béréb boo xamante ni euh, boroom daf ko dafa yoroon entreprise ci Europe di xëyloo soixante-dix personnes pàgguteef ak sëriñ bi ak ndigal tax mu toxal ko dakaar jël personnel bu toll ba jëlal mu nekk loo xam ni xalal la lu dagan lañu fay def ay xéewal moom Chérif Mbay Jon nag ànd ko ak soxna Bintu Seen di soxnaam ak euh, personnel bi ñu ko liggéey ci liggéey bu mucc ayib nga xam ni lépp loo xamante ni wàllu gastronomie la wala boulangerie pâtisserie wala lépp loo xam ni xeetu lekk la bu ñuy soxla mu jëm ci ginaar pison naat gambas lépp luñ ki soxla bu ñëwee da nga ko amee ci anam bu sell ah muy dem à travers loo xam ne c'est c'est national fépp lay dem ndax kilifa yi liñ ciy bëgg mooy lu sell ah ci nekkin bi tamit mu teg ko ci ndigalul Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Khadir ndax at mu nekk mu gane si fa njabaroog Serigne Touba gi. di fa wàcc si mënuñu leen lim bu ñu leen limee dañuy juum waaye nag dina am ñu ci tànn muy ku mel ni sëriñ Omar Jaxate nga xamante ni du sëriñam waajuram la ndax doomi xool dafa am doomi deret am ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu alaaji Sadda Toob di nuyu sëriñ fallu Badiane nga xam nga xam ni mooy PDG caro 28 établissement sëñ Fàllu 28 di nuyu Matar Diop di nuyu Serigne Khadim Gueye di nuyu Bintu Seen borom su bi di nuyu Mara Diop di nuyu Mor Naar di nuyu sëriñ Khadim Gueye ah di leen ziare bu baax di leen jox seen wàccuwaay muy liggéey boo xam ne daal sëñ maam Mor bu mucc ayib la ñu di ko def ci professionnalisme ndax euh, ñaar rek moo am nag ci wàllu liggéey surtout ñam sel ak discipline bi personnel bi di ko di ko joxe ci anam boo xamante ni anam bu set lay doon euh, ñu di leen ziare bu baax di ziare alaaji mbàkki yu ndax moom am lente woon nañ ci nekk sëriñ baara te boo gisee ñu accompagner leen ci lii mooy bépp ak lu ko jege rek alali sëriñ Tuubaa la donte la jullit ñëpp it ñoo fay ñëw euh, ñu ngi sant bu baax di gërëm ci taxawaay bi euh, foofu daal mu ngi nekk en face Léopold Sédar Euh, président directeur général bi Chérif Jonn euh, lépp lu nit soxla daal ci wàllu yàlla na ñëw rek ci wàllu ñam ak lu ñuy naan ak foo ko bëggee euh, livraision à domicile am na lépp lu luñ ci soxla am na ñu ngi leen nuyu njaboot ak Cheikh Rafal gi gi fi nekk ñëpp ñu ngi sant bu baax di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah dellusiwaat ci yow léegi ci kanam waaye ñuy ñuy seetaan daal ni tey moom waa Lamera yi ñoo ñu euh, gunge ci li nga xam ni mooy plateau bi muy guddig maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ni lépp loo xamante ni tey lu fi nit di xéwloo la euh, ñoo ko fas yéene gis ngeen taabal ji ni tey jii moom xam naa ñi sant Diouf ñi sant Ngom ak Fay moom tubaarkàlla euh, bu ñuy dellu seen kër moom seen xol dañ seet ndax lii ma gis ci taabal ji moom mënta jeex sëñ Mamor kon ñu ngi leen di sant bu baax noonu ko Cheikh Massamba waxee ñu del siwaat ngir képp koo xam ne rek bëgg nga xéewlooti lu jëm ci lu wolu rek nga mën a yegg foofu kon sëñ Mamor maam seex Anta mii balaa nuyoo euh, ndax moom dañoo bëgg mu tijjil ñu balaa waxtaan wee tàmbali mu tijjil ñu ci xaside yi mooy doon nuyoom soxna Faat Bass moom tam waaw yebal na délégation boole ko ay xéewal mm-hmm. ne plateau Touba TV tey dëgg la ginnaaw mooy bis bi njëkk amee njibbal ci ci ci ci ci ci loxo mm-hmm. nee na moom it da ciy barkeelu ndax saxaar la buy dem mm-hmm. te da ciy bëgg def ay bagaas mu yóbbul ko ko dëgg la yebal doomam ak xaritam ci kanam mm-hmm. tuuti dinañ ci ñëw insha allah ak soxna yi ñëw ñëpp am na tey ñu jóge ba ba ba ba parcelle ñëw ngir teewe bis bi waaye waatu Touba bi tamit ñu ngi ñëw ndax ñun ñëpp seq yi fi tey sëñ Moustapha dëgg la balaa maam Cheikh Anta waaw maam Cheikh Anta xam naa bala ngaa ubbi xasida nga nuyoo nga nuyu ñaari baat ci. publicité bi ma war a def nag ca Laméral. Mhm. defaguma ko man. waaw di nga ci ñëw léegi maam Cheikh kon. billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani mhm. arrahim mhm. la qawla wala quwata illa billahi alali alazim ijcal salaamatan taduumu ya salaam li yowa lil iyaala fi daay salaam rabbi biha min alwara ma la yuqad ya xayra man rabba wa xayra man laqad barkeb Sëriñ Tuubaa barkeb maam Cheikh Anta barkeb Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi lay ziar bu baax Cheikh Mouhamadul Moustapha di ziar bu baax sëriñ Mamar nga dendeel ñu bokk Daaru Salaam waaye di ziar sunu baay bu baax baay aadama Sarr mi di ko ñaanal sunu borom guddal fanam di ziar baay Silla di leen jéggalu toogaayu kaw bi ndax émission rek moo tax ñuy toogandoog ñoom ci kaw waaye sunuy jëwriñ lañ sunuy baay lañ ndax baay Adama mii ñoo bokk Touba ci Serigne Touba dafa wax ne fala tujaalis man ak baraa min ka bila daruratin kamatara wëlbatiku waxal na fala tujaalis man yakunu azama kon toogaay bi ñu ngi leen koy tuubal bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke mu yàgg fi lool tànn ak wér di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb mu yàgg fi lool tànn ak waaye di ñaanal sama sëriñ sëriñ Mamoun Mbacke moom sëriñ Abdul Xofor mu sëriñ Modou Mamoun mu maam Anta di ñaanal magam ji sëriñ Mokhtar Mbacke waaye ki ma defar ki nga xam ne moo ma tarbiya liggéeyloo ma Euh, lépp lu nekk ci man mu def ko ci man ci xasida yi muy Serigne Amidou Mbacke di ko ñaanal ndax aw ma fayam yàlla yàlla guddal fanam di jaar baax Serigne Fallou Galas Mané Mbacke di suma Serigne di suma xarit sama euh, Mouhamadoul Moustapha bi ñuy ñëw ñu bëri waajal nañ ñu di jaar waaj jam ñaayo sama soppe yëpp a ngi toog di seetaan tey tubaab bi ku ci mel ni monsieur le maire Mamadou Moulay Guèye di suma xarit ak soxnaam ku ci mel ni monsieur le maire Albin Ndoye mm-hmm. ku ci mel ni euh, sunu sunu wayjur bamba bamba bam bamba njaay sunu xarit mel ni Cheikh Abdou laat seen bu ñu limee dañuy ñoom ñëpp ñu waajal ngir ñu bis bi nga xam ne te yoonu murit ci lañ jariñu uh-huh. da wax nañ ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi dem mbiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ci bés bi ñuy texe kon Cheikh Ibrahima moo ñu dimbali <laughs> jërëjëf euh, maam Cheikh Anta mbay ci nuyoo bu am solo boobu xam naa bala ñoo tàbb ci liggéey bi li ñuy tijjee suñu jotaay tey mooy euh, sëñ daam bu fekkee élément bi nga xamante ni euh, tey jii surtout bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni moo jóge ba gànnaar siyaare si woon ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Muntaxa euh, fee ca Touba euh, ngeen gis ko noonu nga xam ni lii ca jamonoy Serigne Touba ba léegi nga xam ni loolu sëñ Mamor mi laay bàyyi mu commenté ko ndax moom la bëgg a ubbite ji suñu palaatu sëñ Mamor lan ngay wax ci vidéo bi. sëñ Safa vidéo bu sedd xol ngi nii. tubaab yi dañoo tànnoon réewu gànnaar mhm. ngir bëgg faa yóbbu ko tedd ki mhm. ndax dañoo jàpp ne ñoom sëñ tubaa échec bi ñu am ci géej gi mhm. bu ñu demee gànnaar mu yi dinañ mujj doon ay ay ay taalibe naar yi waaye ulaa daymaan la fa fekk ak waa multu mulaana waaye nag sëñ tubaa ci ci ci xam ci xam lañ koy naral tax na ba mu ne euh, bu ma jayil topp bu ma kenn ku ma warta topp topp Cheikh Sidiya Baba di ko si di ko gàttandu Cheikh Sidiya nag maami kii waaye boo gisee ni sëñ tubaa gañe na tubaab bi mooy euh, dafa mujju jël sëñ Mourlo Dagana mi ñu doon waxtaane bërki démb teg ko Dagana ne ko bu la kenn romb te mokkalul téere bi addiye ju ñëw na ak agsi ci yow moo tax gànnaar jahil demul euh, ku ku ku ku ku ku yamambaay demul gànnaar mm-hmm. ay mufti ñoo topp sëñ tubaab moo tax sëñ Musaa ma wax la gaaye santu daam jëm gànnaar ànd ak sëñ Tuubaa te ñëppay jàmbaar njëkkeel rakkam sëriñ Afiye moo jiitu sëriñ Maxtaar Penda mooy loxoom di woote sëriñ ma Samba xari Diop see xari Diop ak Njóogu Njaay mu xari ñang may togg ceeb mm-hmm. te nag waa ji moom bis bii mm-hmm. lu sëñ Tuubaa am rek dugal na ci loxoom mu ne nag Seex Ibra Fall boole na ko ay saadix fan yam am dagana soobu dax mm-hmm. am fa ñeenti fan ñu yor karos ga ñu di ko war di romb waa tefes ga sëriñ Mamar Gueye Modou Gueye Lamborno Aliou Gueye rakkam ja ñoo daan korno boole ci Ibrahima Sarr Bassin mbër la teg Moustapha Gam mu murid saadix la ñi la yoroon karoos ga ànd ak Bamba ci ndigalal Cheikh Ibra Fall saadix ba mhm. euh, sëñ faa kon bu waa gànnaar ñëwee mhm. daan indi ay giléem na ko sëñ Tuubaa daan joxe mhm. tey Cheikh Sidiya sëtam ñëw sëñ Muntaxa jox ko feggu toog ak moom ne ko kaay ñu déglu fulku bi sëñ Tuubaa moo gañe sëñ Moustapha loolu rek laa ciy duggee muy portale boo xamante ne dañ koy euh, euh, ak Cheikh Sidiya ngi nii sëñ Moustapha Cheikh Sidiya Baba nga xamante ni bi sëriñ bi nekk ganaar moom la fa fekk waaye muy surtout bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xamante ni histoire bu am solo boo xam ne bis dina ñëw ñu def palaato spécial ci gànnaar. Mhm. Euh, euh, sëñ Amath loolu nekk am solo. waaye bu sunu ngi koy nuyu mhm. moo dox loolu digganteem sa sëriñ bi gànnaar. dëgg la moom la sëriñ bi bàyyi daanaka. naka jekk sax nag moom. Mhm. Euh, jërëjëf kon bu nu jógee ci vidéo boobu sëñ Mamour ñu ciy teg mooy waa Sobowa. waa Sobowa di ay wóolere yu am solo di ay am di jàmm. di ñu baax nga xam ni ki may njëkk a tudd mooy Mouhamad mu baax mi nga xamante ni. daanaka mu nekk ci kanamu góor ñi di góor góorlu ak sama jarbaat euh, soxna Roqaya mi jee mi nga xamante ni euh, maa ngi nijaayam. maa koy waaw sa xarit waaw maa ngi koy nuyu siyaare ak DG ak directeur yi nga xam ne dañoo ñëw Masaalikul Jinaan jàppale si jëwriñ ak yu fay ci ndog yi nga xamante ni fub jullit ne. bu doxee ba waxtu 5 heures jot wala 6 heures bu xeelam demee ci ndogu mu ñëw Masaalikul naan gis ngeen ko noonu am na kàddu yu nga xamante ni déjà yëkkati na ko waaye mbàkk yu tontu ko ñu daal di bàyyi déglu li nga xamante ni mooy kàddu yooyu daal di jël sëñ Mamor bismillah kon dem déglu ko la loolu Nous sommes ici euh, en famille et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait chaud au cœur de se sentir accueilli comme ça au sein de la mosquée. Merci en tout cas pour cet accueil. Et euh, encore une fois, la Soboa est à vos côtés, euh, l'est depuis un certain temps et continuera à l'être. Et cette visite est vraiment l'occasion de renforcer cette, euh, ce relationnel fort que la Soboa entretient avec, euh, avec euh, votre communauté religieuse. moom daaw la fi ñëw bi fi ñëwee li mu njëkk a def mooy dem ziyaare xalif bi tasante ak maggal gi ndeysaan mu indi contribution ci màggal gi loolu tamit mu gis ni Masaalikal Jinaan te liggéey bi fi am bu am solo muy muy muy muy muy ci jaamu yàlla muy tamit ci nit ñi sax ndax mbas mi gis nañ ne fii masque yi ñu ci def mu ne woon nag il faut ñu ñëw daal ñun apporter suñu contribution bu tuuti rek suñu suñu suñu ànd ak ñoom suñu ziar ziar boobu nag moo nekk ni mu tolloog 313 euh, paquets boisson ñetti téeméer ak fukk ak ñett paquets boisson 15000 masques fukki junni masque ak juróom euh, ñaat téeméeri jullikaay ak euh, cent gobelet yi ñuy naan kaasu ñu yoo xam ne nit yi mën nañ koy naane. xam ne yooyu dañuy naan ku naan rek da ngay naan nga sànni ko kenn du ko naan di euh, muy directeur commerce général bi moo nekk noonu moo wax léegi directeur commercial bi moo topp ci moom moom tamit bëgg bëgg bëgg bëgg Touba lool ba mu jaral ko tey gan gu jóge fa mu jóge di Madagascar ñëw fi Sénégal day ànd ak moom bu mujjee mën na ànd ak seen ministre de defence ñu dem ba ziare sëñ bi ndax ndax bëgg guñ bëgg Touba ak fonk guñ ko fonk roqeetu rasul moom mooy yor lépp luy marketing suba d'ailleurs li li ñuy def yëpp sax ndeysaan moom tamit lu ko sabab ci la bokk ak ndey bu yee ñing moom moo yor li njaay mi ci mbirum magasin yu mag yeeg ak yu ndaw yooyu ak seen équipe yi ci des programme reporter yi ak yooyu ñuy ñaan daal sëñ bi ngeen ñu yokk ñaa ñaanal ñu rek ñaanal ñu euh, ñi di ko mën ay at yu bëri euh, di ko mën at yu bëri daal jërë ngeen def. Nous sommes euh, ici chez vous, ce lieu de culte que nous partageons nous tous ensemble avec votre délégation, votre, comme il les a cités, le directeur commercial et la directrice euh, du marketing et tous vos collaborateurs. Et vraiment, les paroles euh, nous vont droit au cœur, parce que ici, c'est une maison de Dieu. C'est une communauté qui vit ici et qui dépend de la grande communauté mouride que vous connaissez et dont le Khalif général, Cheikh Mohamedou Muntaka, vous a reçu à plusieurs reprises et a reçu à plusieurs reprises aussi vos dons pour participer aux différentes manifestations religieuses euh, que nous organisons euh, sous l'égide euh, du Khalif général. Donc on peut dire que c'est pas une première. Et vraiment, nous tous, nous savons vraiment euh, euh, la générosité que cette société qui est aujourd'hui un des fleurons de l'industrie alimentaire du Sénégal et qui a participé depuis très longtemps, parce que ça, c'est la Soboa, ce n'est pas, pas aujourd'hui. C'est des générations et des générations qui ont vraiment développé cette entreprise aujourd'hui, qui est une fierté de, de, de l'industrie au Sénégal. Vous aurez pu simplement envoyer un de vos collaborateurs et ça aurait suffi. Mais si vous tenez à venir vous-même, nous manifester votre solidarité pour cette période de dévotion qui est le mois de Ramadan et cette nuit bénie que nous, que nous projetons organiser demain et pour prier pour l'ensemble de toute la communauté humaine pour que Dieu nous donne la paix et que cette pandémie, la maladie qui sévit un peu partout dans le monde, que Dieu nous fasse disparaître cette maladie. Vous venez contribuer vraiment à la prise en charge vraiment alimentaire de nos compatriotes. Vraiment, c'est un acte hautement symbolique que nous saluons. Nous vous disons merci. Soyez rassurés que nous transmettons au Khalif général du Mouride cette donation qui est venue à son heure Mais soyez rassurés aussi que nous ne vous oublierons pas dans nos prières. Vous serez dans nos prières pour que Dieu, quand même, répande sa grâce sur toute la communauté humaine et que votre entreprise puisse vraiment se développer au-delà même de vos espérances. tubaarkàlla jërëjëf euh, xam naa ni euh, ñu ngi. lu yaatoo yaatu la euh, waaye Serigne Saliou wan noo koy sant mu ngi noonu moo indi kafe gi di waa kër euh, Sëñ Saliou yi nga xamante ni café kër Sëñ Saliou nekk fii ci Colobane ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm gis ngeen moo ko xam naa bu ngeen mënee mooy tuuti caméra yi rek ngeen ngeen séddale nii rek pour mañ a bañ a euh, kon ñu ngi sant waa Sobowa yooyu nga xamante ni DG bi nga xamante ni mooy Emmanuel Mander nga xam ne mooy directeur général bi noo ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax sëñ Alioune Fall mi nga xam ni mooy chef marché Soboa mi nga xamante ni moom tamit moo ko doon traduire noonu ci wolof noo koy nuyu baax te di ko siyaare ni ñu nuyoo jàmbaar yi nga xamante ni ñoo fi jàll sànq euh, yaakaar naa si Mamor loolu am solo la bala ñoo dikk ci euh, suñu vidéo bi mujj rek pour waxtaan bi tàmbali. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa gis nga waa Soboa li ñu def ànd ak directeur général bi ak directeur marketing bi ànd ak personnel bi yëpp dégg nga jëw ni mu leen ko waxee kenn bu ngeen ko yónni rek mu waaye yéen a ngeen ànd indi lii defal ko sëriñ bi moom bi fi nekkal sëñ baa ngeen teg ko ci ci loxoom lu rëy la sëñ Mamor lan ngay wax ci loolu ñu door a wéy. jërëjëf Moustapha xam nga keroog sax maa ngi tooñ jiw di na ko. Mhm. du tooñ waaye loolu laa loolu laa sentir loolu laa yëg. Mhm. nee naa ko tubaab yi ñëw sax yow yaa leen gën a dig fa. Mhm. parce que làkk dafa fees façon façon façon wax naa ñoom façon boo xam ni. loolu mooy la sëñ Balla Coro defoon. mooy baati nasaraan yooyu nga xamante ne jot naa dugg ci njoor yi ngir bëgg bu ñu ñëwee ñoom bu ñu fi ñëwee fekk ñu mën a wax ak ñoom mhm. kon ñun jëwriñ jooju la yàlla jagleel mhm. waaye itam mu mu noonu la ko defee parce que itam tam mhm. euh, euh, masaar na ñëpp fay ñëw gis nga ñi ko liggéey sax daanaka moo doon wax ak ñoom di tracé di wax ak ñoom defal leen ma li defal leen ma li kon Serigne Touba lu lu neem bu jotee rek day am ci noo xamante ne noonu lañ ko noonu lañ ko defee Moustapha café gii nuy naan waa kër Serigne Saliou yu nekk fii ci Colobane nga xamante ne lim employé rek moom itam bëgg jeunesse bi xam ni am nañ lu ñu mën a jàpp loolu kon ñoo ci ñoo ñoo ngi ñoo ñoo ngi ko yëg état bi yëgul ko ñëpp xamal ne moom tàmbali na ay employé depuis mhm. tey sëñ Saliou wax muy café goo xam ne ku ko ñam sax di nga xam ne lii mooy café loolu mhm. waa Colobane ñu ko ku ko miin miin nga ko mhm. sëñ Saba bala ñoo dugg te tuuti ci euh, video yooyu ndeysaan soxna Ami Diop Fall di ku baax sëñ Moustapha dana moom ni mu mel ci Cheikh Ibra day ñëwal boppam ci plateau bi fii nuy toog nu ngi koy nuyu dend ak soxna Ndeye Fatou Mbengue moom sëñ Fallou moom moo leen dalal ndax mooy mooy télévision bi Ndeye Fatou waaye tamit soxna Amina Thiam mi ngi ànd ak soxna Anta Diop sëñ Moustapha soxna Fatim Baas ma la wax sànq dëgg la yebal na xaritam léppam waaye mu jur boppam muy soxna Fanta Diallo. Mhm. ànd ak doomam soxna maam Marème. Mhm. mbay ñoom ñëpp ñu ñëw teew. ngir lan mhm. bëgg bëgg nu xam ne. Euh, tey guddik Cheikh Ibrahima Fall la. dëgg la waaye tey tey la yoon murit am ndam tey la lislaam siggi te dinañ ci dem tuuti ci kanam bu ci suñu waxtaankat yi ñëwee sëñ Safa loolu mooy tottali fi jot a jaar. waaye tamit sëñ Safa. ki nga xamante ne mooy Pape Demba Bitèye. nañ ko sànq. ci kanam tuuti. li mu jëfal yoonu mu murit nga xam ne luñ ci mën a résumer rek parce que mënu noo wax lépp mhm. ci bi mu fi nekkee léegi mhm. kon noo ngi ñaan mu yëpp ci xasaayit yi nan ko ñaanal suñu borom dolli ko kàttan dolli ko wér mhm. ba mu gën a mën a liggéeyal lislaam donte waa kër Baay la waaye da ne euh, dinaa def loo xamante ne ci diine ji. def ko ci tariixa yi loo xamante ne ni kenn ku mës a jox directeur directrice su Senelec mosu ko def. te loolu dëkkoo jëf waxu ko rek bàyyi ko jëf ci kanam tuuti suñu safaa dinañ ci dem incha allah. jërëjëf sëñ Mamor euh, moom xam nga euh, bis bii muy palaatoo maam Cheikh Ibrahima Fall bii moom lañ ko darajaale li tax mooy bëggam sëñ Touba bëggam Cheikh Ibrahima Fall nekk kenn ci yoon wi nga xam ne léegi lu xaddari rek dafa di jóge fii dem ba Touba. dem ci Cheikh ul Muntaxa fa la laylatul xadre fa la ko sëñ bi topp ba nu jàng kaamil li ba def yëpp mu yeewi ko mu door a dellu keroog bi ñu indi géré masaalikul jinaan dani lépp lu jëm ci courant maay fay lépp ndax participer ci mbirum sëñ waaw wëlbatiku tamit ndogu yi nga xamante ni ni ma ko waxee bi ñuy tàmbali fi waaye nekk nga xam ni alaaji mbàkk yu fay dafa yëkkati 10 millions dafa yëkkati 15 millions bi ñu umee rek daal ni képp koo xamante ni yàlla dogal na mu bëgg a ndogu su doxee ba waxtu ndogu jot na ñëw ndogu. bu jeexee na ngeen ma na ngeen ma na ngeen ma laaj ma dolliwaat nga xam ni ku xool ndogu Masaalikul Jinaan yi xam ni mbirum Sëñ Tuubaa saa su nekk kanam la jëm. loolu nag la nit ñu baax ñi gis Pape Demba bi tey mii gis ko daal di yëkkati àddiyaam moom tamit. deux millions cinq cent daal di joxe li nga xamante ni moom tamit ni jëwriñ dama koy participer ci loo nga xamante ni moom ngay defal Sëñ Tuubaa loolu moo waral ñu di ko sant di ko gërëm muy DG Senelec nga xam ne fi nekk ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ndax yaakaar naa coupure du courant moom daal di jël sukkur koor su am sot doo solo sëñ Moustapha jox ko imam bi imam sëñ Bassirou ah, imam sëñ Bassirou loolu daal ne sëñ maa war maa waroon a def lépp hmm. waaye nag tey moo xam ne song na song na mbër waa xam naa sëñ daam bu dee sañ Mañaay bu fekkee Mañaan bu fekkee vidéo bi Euh, jàpp na ne man ñu ñu ñu ma waaw daa mel ne jàppandeegul. xam naa lii bu ñu gisee Moussa Tall ñu ko def danoo bëgg bu ñu duggee ci Cheikh Ibra rek. Mhm. ñu xam ne moom li des yëpp brut bi la. dëgg la brut bi la fi ne boo déggee na pétrole feeñ na Sénégal. Mhm. du biñ lay jaay ci bitig bi. Mhm. du gasoil mooy brut bi brut. dëgg la tey Cheikh Ibra Fall Serigne Touba brut lañ soxla. original bi. moo tax ñu yebal euh, jërëjëf euh, vidéo sëñ Pape bi tey boobu di noppi muy ñëw gi nga xamante ni yónnee woon na ko ki nga xamante ni mooy ajas di rakk ci jëwriñ ñu bokk lépp mu nekk fii ci ñaari tali nga xam ni euh, rakam la léppam la moom la yónni woon keroog moo indi àddee jooju bala moo euh, bala moo vidéo bi àgg insha allahu rabbi ñu ngi koy téléchargé ñu daal di bàyyi kii nga xam ni mooy maam Cheikh Anta si maman. waaw suñu safaa mm-hmm. noo ngi nuyu baax a baax suñu sëriñ. waaw suñu xarit nga xam ni yemut ci jàpp ci télé bi waaye conseil mm-hmm. muy sëñ Basiiru Xaadim Awa waaw. sëñ Bassirou Mbacke xaadim awa ba waaw sëñ Moussa euh, baa ngi noonu ñu déglu ko tuuti rek déglu tuuti waaw uh-huh. ñu déglu vidéo bi abonnement yi sax dafa euh, ci liggéey la ak yeneen ndimbal yoo xam ni def na ko ci ba keroog damaa mujj jël téléphone jox ko Cheikh Bass mu wax ak moom mm. sant ko mm. te wax naa ko it sëñ bi mm. waaye indiwaat na fi ay koppar ma ko dimbali ci weeru koor wi deux millions cinq cent mille am loo xam ne addiyam la mu ne da dala koy jox te bokkul ak loola la sa addiyee bopp la <laughs> waaw waaw nga ñaanal ko nag waaw na nga ko ñaanal bu baax moom moom it sama diggante ak moom. moom sama sama sama sama lépp. waaw moom kii sama bàyyi ñës waaw man dama ko wax barki dem am na ko ak participation bi nga xam ne def na ko ci Masaalikul Jinaan ñu di ko sant bu baax a baax a baax. muy Pape Demba bi tey di DG sa noo ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaanal euh, lépp lu man ren mu mën lu ko ëpp ndax euh, loolu mooy taxawaayu nit koo xam ne jox nañ la responsabilité euh, te lu toll ni Senelec nga yokk ci réew mi di ci góor góorgóorlu sa kem kàttan loolu ku ko def waris na laa sant waris na laa gërëm rawatina taxawaay bi nga xam ne am na ko ci yoonu murit kon noo koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax xam naa ci kanam incha allah dinañ kon ni ñuy def rek mooy daal di tab bi nag directement ci waxtaan wi nga xamante ni moo tax ñu ñu woote tey muy guddi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina woo ki nga xamante ni mooy suñu baay Adama Sarr woo ki nga xamante ni mooy euh, Serigne Moustapha Sylla sëriñ moo Modou Aminata Fall nga xamante ni euh, moo jiite euh, mouvement bu mag bii nga xamante ni mooy MMDS nga xamante ni ñoom ñii rek ay partenaire lañ ak Promobile ndax mouvement bi mu jiite ay junni junni junni nit ñoo ci ne waaye ni du ma dem ci benn euh, euh, du ma dem fenn foo xamante ni ñooñu dañoo yor waxukaay damay bañ a tudd di publicité waaye daal damay ñëw ci promobile directement nga xam ni ki ko yor taalibe bi sëñ la jàmbaari sëñ Tuubaa la doomi réew mi la lu mu mas a am investir na ko fii ci réew mi télévision Touba TV ci la bokk Océan FM ci la bokk 24 heures ci la bokk Touba Pay ci la bokk lépp loo xamante ni alaaji mbàkk yu fay am na ko rek daf ni dama koy def fii ci Sénégal ci sama réew investir ko fi kon looloo tax sëñ Moustapha ñi nga xam ne moo leen jiite daal ni man ak samay membre ñëpp dañuy dem ànd ak promoteur signé ak ñoom convention ànd ak ñoom liggéey xam naa ci biir waxtaan wi sax di dinañ xool fàttali dab bi nga xamante ni moom la ñu am war a am ak waa Promobile ñu di ko nuyu di ko siyaara ndax liggéeykat la liggéey rek la xam su ko defee maam Cheikh Anta kon yaa ñuy tijjil bi ci ay xasida su ko defee ñu daal di nag euh, continuer nga xam ne mooy waxtaan bisimilah. Mouhamadul Moustapha mhm. eh, di wax ni waa Tëngéej yëpp ñu ngi seetaan émission bi suñu way juri wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi teewlu jataay bi di leen ñaanal bu baax ndax foofu na bàyyi ko yàlla na yàlla dolli leen tawféex incha allah سميته منع البنيان معلم الجوان والعميان سميته منور البنيان معلم الجهال والعميان إني توصلت إلى رقمان قالقنا بسور القرآن إني توصلت إلى رقمان الأبدان خالقنا بصور القرآن بدأت بالفاتحة المعظمة وسورة البقرة المكرمة وآل إمران وبالنشاء أجارنا الله من الأشواء ولا نلاقي ما يسوء أبدا بجاه من رب الأنام أبدا صل على محمد في الآل رب البرية وفي المآرم صل على محمد في الآل البرية وفي المعالم والنبي المنتقى المنير ينير قلب كل مجنير أحمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باهى نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أسكى شرات المرسلين نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أسكى شرامي ربيا كتاب أمر سواء النساء وإنه بغيره لن ينسى للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم من منه إبليس الأباق للمنتقى للمنتقى للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم من منه إبليس الأباق للمنتقى الذي تقدم الشباب ذكر الحكيم منه إبليس الأباق عليه صلى بسلام سرمدا في الآل والأسر وكل حمدا للمستباب لدى الإله الواحد نور ينير خلب خير جايد أنا يسكن آد في كوني أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فامت صدر الأمن نافية أفجمت لم ينوني لم ينوني لم ينني شك ولا توهم ولسوى قلبي ينهو الوخم قلبي جنة الجميل خبيب ولن يخوض النور في مالي أبي علمني من لوخي والخلم من لليقود علم ما لم أعلم جل من شو الذي أداني لأنه البار شمن وداني يعذبني البخي من الأكدار في دار دنياه وتلك داري مع النبي المنتقى المنير زلم قلبي وخبا بنور دار السلام دار السلام دار السلام توبى دار المنن دار السلام دار السلام توبى دار daarul minan daaru salaam ku sopp maam Cheikh Anta Mbakke bàyyi Cheikh Modou Mamoun Mbakke daaru salaam Touba daarul minan daaru salaam Touba daarul minan daaru salaam Touba daarul minan daaru salaam Touba daarul minan شريك بالخطبة إلا ديوري سمع يتوبة أذكر إذ في حبس سلام سوري يخيني عسى الممرم رجوت بها منه وهو ظلمنا تيب نفس بفراد وسنن إذا جل كما قدم ليبيا وخربة الأجاد لله ربي علي كوني عبدا لا يخدم خير كوني سامني بكوني سلام من كل ما يجر للملام لولد توبا شكرا تابا علي يكتفي بالاقتابا انسى جل وبالاثنين طيب نفسي ووزن الكونين مني خطابي إلى ذاكرة في سير مولد النبي ساكرة طيبت يا مولاي في ترابي نفسي فبجلب المنى ترابي واجب كل يوم يا بابا يا ملول يا ابو صابون إجابة تلب للداية ممن يحبني ومن داية ديور جعل يا كريم جنة عن لين ديور الجنة اجعل سلامة تدوم يا سلام يا ولي على في دار سلام اجعل سلامة تدوم يا سلام لأول يا لبي دار سلام أجل سلامة تدوم يا سلام لأول يا لفي دار سلام ربي بيابنا الورع ما لا يخدم يا خير من لبى وخير من ود إلي سكفع وفي توبة فوق الذي أذنه من رقبايا ليبتين ربي خيرا فيا وجه القيادة قيادة دافية مدايات بفروج وسنن لجنة النيم في دار منن نجاياتي من ممات والكدر فجر الحساب ما مدى بقدر نجيتني من الممات والحساب فجل نساب كل خير انتساب لا إله إلا لا فال جغيام شيخ إبرا فال جام نفندم لا إله إلا لا فال فلا إله إلا الله ilaha illallah ku soppu Cheikh Faal bëgg ne jaam ñi fande faal la ilaha illallah illallah maami Sëriñ Moodu Fallu Faal jaam ñi yaa leen di ginde addi Cheikh Ibra Faal euh, maam Cheikh Anta wax nga dëgg de boo guddee jaam ñi fande waaye jaam ñeet yaa leen di lool loolu loolu loolu moo wér sëñ Sidi Ndiaye ca France ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar mhm. moom nga xam ne léppam daam salaam la mhm. mi ngi lay nuyu di siyaare waa plateau bi yëpp soxna Ndey Soxna Guèye nekk fële ci Diourbel mhm. bokk ci kër Serigne Mori Mbuub di ñu baax Serigne Baye Matar Guèye sëñ Abdou Lahat Guèye ñoom ñëpp maa ngi profité di leen nuyu ñu ñuy topp waaye suñu waajur wu baax sëñ Mamor mi ngi ñuy topp balaa Baye Adama tàmbali waxtaan wi mooy suñu nijaay ma faal faal xam ni moo nekkal maam Thierno Ibrahima Fati fii ci Ndakaaru daanaka boo tuddee alaaji mbàkk yi fa ngi représenté sëriñ bi fii ci Ndakaaru ak li ko wër boo duggee kër kër maam Thierno man ne suñu waajuru ma faal faal moomu moo fi représenté maam Thierno xam nga sëñ Moustapha maam Thierno mhm. dafa fekk si sëñ Touba Njaaréem mhm. mu ne fu ne ñu ne ko mu nga kër sëñ Balla Coro mhm. mu ne mënumaa nekk ci biir Thierno nekk ci biti ndeysaan Sëñ Tuubaa da ko daan daloo Cheikh Ibra Faati mhm. li mu mooy moo doonoon përëgu ndey jorom dëgg la moo tax bu bu bu jëwriñ nekkee fii jëwriñu Sëñ Tuubaa mhm. sëñ euh, euh, basant ñang mhm. yàlla na fi yàgg loolu tiwee amiin koo xam ne mate na ko te da koo nag dëgg la mu ne ko toogalal maam Cerno fii kon Cheikh Faati moom ay mbiram loolu la dëgg la sëñ Moustapha sëñ Cheikh Diwane Sylla moo ngi nuy topp sëñ Mourou Kara Sylla noo ngi koy siyaar ak mboolem Daaru Muxti gépp amiin si Moustapha Cheikh Anta mii. Mhm. ba tey mi ngi ci bi Cheikh Ibra. waaw nga dëgg de. xanaa xamoo bul fàtte ni Cheikh Ibra wax nañ ni am na mag moo xam ne sëñ Muudu faat na faa da koy bés ba yàgg. Mhm. nee mu daal di ne ko xanaa déggoo kënu yi tàkk bi ci aras. Mhm. mu ne ko ah loolu de yaa ko mën a dégg Fall. mu ne ko Seex Anta lañ doon fal ca Aras. Seex Anta fal nañ ko de keroog lañ seexal maam Seex Anta kon Seex Ibra moo xàmmee kër ci guddi. kon xam naa foofu lañu bàyyee waxtaanu ma. tey ay ay ay kii rek laay def. waaw yàkkamti wu noot nag. yàkkamti wu ñu ngi fi a dégg am na ñoo xam ne dañ ne xëyuñu suba liggéey <laughs> voilà. tubaarkàlla sëñ moor Gueye jànkatu xasida ñëw na dañuy bàyyi rek ñuy tàmbali mhm. deuxième partie bi mu dugg ñëw ndax euh, moo waroon a tijji sax waaye mhm. moom maam Cheikh Anta benn lañ mhm. ñu bàyyi nag suñu bàyyi aadama Sarr mu duggal ñu ci euh, suñu digganteeg jàmbaar ji nga xam ne tey jii bis bi ma muy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina te ku tudd maam Cheikh Ibrahima Fall tudd ak taalibe te ak taalibe mooy liy jariñ ab taalibe ci digganteem ak sëriñ bi kon bàyyi Adama ginnaaw bi nga xam ne nuyoo ba jàmbaar jooju nga xamante ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall lan nga ciy baaxee mbokki taalib yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo. lan la ci yëg mhm. mhm. guddi kii bu baaxul woon benn guddi du baax. Mhm. waaw guddi tey gii bu baaxul woon. ci genn guddi du yàq. la guddi yi ko weesu ak yi jëm ci kanam nag laa wax. maa ngi ànd ak waa Touba yi ñëw. suñ parti bi Moukhaddamatoul Khidma. Mhm. Sang Ndiaye. Mhm. Abdou Seck. Mhm. Euh, sëñ Moudou Lamine Sène. daal bi sëñ Moussa moom sëñ Moudou Fatick yi. ñu ngi siyaar ba xalifa bi ndax sëñ Cheikh Mbacke mi wàcc bëgg dem. ak sëñ Fall mi manam Cheikh Anta mi bàyyam laa. ci wet waaye du bàyyi Cheikh Anta gi mu tudd. ndax man diggante suñu dox foofu rek suñu mudu moomun ci laa yaroo ma bàyyam noo bokkan génn kër waaw muy suñu dox foofu mbàkke moo ma woo munu ñëw munu ma yaay saa bàyyi falu kër wékk ndoom ak baat ci saa kanam sama baat ca tubatul may roy fi ñëpp laay faal ndar ak sa Seydou Assane ci loolu laa gimmee ci Baye Fall moo tax lu Baye Fall bëgguma ko Baye Fall rek laa bëgg a doon Baye Adama waaw nee nañ euh, léeg-léeg deelu deel xool ñii ak caméra bi bañ di bañ di wëlbati ko ci Mamor rek ndax. waaw eh. loolu mu wax ci maam mm-hmm. Cheikh ñu ngi koy fal ci aras di di sàjj. ca fal na ni maam Cheikh Anta yet wi danoo dal ci ba muy tooy. waaw. léegi dañoo dal ci ba muy tooy. waaw daan ne ku ku dul sëñ Tuubaa doo Seex Anta xam naa la sa ndax maa la tiim ci waaye Seex Anta laa xamul lu ñu def ci ndabam. guddi googu ba xamante ne sëñ Gaawaan mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñeent. ndeysaan. sëñ Tuubaa jox Daaru Salaam ak juróom-ñeent fukki mag ak juróom-ñeent ak sëñ Gaawaan muy téeméer ak dëkk bi. moo tudd taawub sëñ Gaawaan muy sëñ Mudu Moomu. Mm-hmm. mu tudd alaaj sëñ Tàkko. tudde ko boppam moom sëñ Tuubaa ko ba mu kaang fóoree daan ni saa bàyyi ci néegam ma toog mu ne sëñ Caarin ma dee borom gaawaan mun ko déedéet mun ko tax boo yet ci digg bi ndijoor ak càmmeñ mhm. gi yot borom gaawaan gi borom ndax sëñ Tuubaa ma tudd mhm. moom seexant moom sëñ gaawaan alal sëñ man moo ma tudd ma adama Seex Faal Tuubaa tul def fa lu ak fu dul tuwaatu suñu fasalam yi bi ñuy xamante di miinante di xaritoo ci ci bàmba ji booba booba yaakaar naa amoo fanweeri at boobu mu bi ma bi rek <laughs> ndeysaan euh, soixante-six atum sëñ Bichirou laa ñëw ci Sénégal Afrique musuma gëstu ku du sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall ndax ku du ñoom féete bu dul woon moom Sénégal ak Afrique ak fu foofu àdduna fi tukki matum sawar la gaa yi doon. waaw digganteem ak Serigne Touba ci laa jëm. Mhm. moo tax may la guddi gi ñu mhm. guddi du jàkk. bu sëñ Tuubaa jamono nag ñi fi fekk ci julli ak woor ak natt murum koor ak natt asaka ak aj màkka ak laay bopp ji saraxe ak natt asaka mm. su ci yaman moo gaa yi mu fekk yem bi sëñ Tuubaa ñëwagul kenn tëniwul mbokk ba di ko defar waxuma la kenn alxuraan yàgg na fi waaye dul jàmm Afrique <laughs> xam naa doom soxna yi dee ñu mer wala ñoo ko diggut fi may waxee wala boog sama gëstu fa mu yegg ñoom seen gëstu yeggu fa ndax murtaa la suñ ma bay nit ku jëtuwut si bu ko daan soo ko ne France laa bi ndékki si Sénégal du ko gëm nit ku jëtuwut soo ko ne France laa reere ñëw tër si Dakar ñelaw quatre heures ma xadd du ko gëm Sénégal bu doon Cheikh Ibra Fall si jàmm du fi am ab dëkk di su fa juddoo rey gune ya toxal mag ña tukki fenn dafa def jàmm <laughs> màkk ya tan doo dégg saar woowu màkk la wàcc madina tan doo dégg madina la saar woowu wàcc te ñool màkk lañu toxalee màkka andi ko madina dalal ko alxuraan nga fa lu tax waxut am déet dëgg la juróom-ñaar fukk ak benn bi ñu leen rayee ci óot am sa bokk ca nga xam bu seeni laxasaay am sa xam ni laxasaay jug seerafaal gi yàgg na ci jamono mm-hmm. lu tax alxuraan attiwut mm-hmm. Aliou jàmbaar la mm-hmm. kenn bu xam-xam lu tax bi ñu koy rey ci Ibnu Maryam lu tax alxuraan attewut ak ñeneen ak ñeneen badar dañoo rey ba ñetti téeméer ak fukk ak ñett des ci trois cent treize moo toll ak ban te sëy bu dàq ban amul daganu mu tax sarafaat bi ko sangu farata nu muy dagane Mor Mbaye yaa ngi waxtaan ak ñeneen Serap Fall mu nu muy waree mu ne bu la daganee noo sangoo baax na bu la daganu noo sangoo baaxul kon moo gën a dégg gaay alxuraan Serapal bi ñu ñëw ci sëñ Tuubaa lu la moo rakkam maam Serapal ñu tënk ko ci kaffa tàmm keef gi kaang la moom Serapal faa gi fóoree taa tomb gi tëfsir na alxuraan mi mi mos sama yàlla kooku fu muy wuti kilifa lu mu koy doyee am sëñ am sëñ Moussa dëgg la de dëgg la de ñi ñiy woote tariixa laa ne yëguñ ci doos boobu Cheikh Rafa lem mm-hmm. mm-hmm. ba yàlla ni ko demal ree seeti sëñ Tuubaa def ko sa kilifa mm-hmm. moo la Moussa Kani mas nañ xabaar ak jéblam ba ne buur yàlla mi ko moom moo ko ni Bàmba la moom raasa ko jox ko say pexe mu tudd guddi listixaar gis na sëñ tey ba Dakar ci jàngale xamee pexe ba yàgg mu ne ko sëñ tay ba mu ne Mbàkke mu ne man de baa fi ñëwee ba léegi dégg guma ngeen yàlla nene ma su ak kàllaama lu bëri su alxuraan la waxuma nga wax nag xaale yàlla ne waxuma ko ku jàng alxuraan man nga ne xaala yàlla ne ku dégg addis man nga ni xaala rasul añ ci addis Uh-huh. wala xultu wala xiila munu ko ah man wax dëgg yàlla waxagul ak man néew góoma jibril léegi la fi bàyyi ko munu ko loolu dégg laa ci am munu ko kawee seet nag day wax ak yàlla uh-huh. ni kalaamu laa uh-huh. Hmm? su toogee ay semaine ni jibril soo ko laajee mu jëlagul loolu mu ko dem lawal ma ko nun àtte la fa daal di ko laaj naa la benn laaj mu ne ko ban laaj mu ne ko ponk mu dee ci biti mandi wala mu dee ci digg mandi fekk ko alxuraan ba nga xam ne jullit la fekk ko kurus ba nga xam ne jullit la jeexantalub lislaam doo ca fekkut ci moom noo koy attee suul ko te ñi mu woo koo bañ a suul te ñi mu ko suul te xamul luy atteem moom la la xam ne wax naa mu kalaf naa mën a jomb dugg ci lu mu xamul àtte ba mbaa mu lekk ko. dëgg la. ba ci wàllu akulu boole naa si bi xëy bi naf si. dëgg mu ne ko loolu suum na ma ni gaa yi suume ci liif laam miim ñu ne wala ahla mil muraad yi mhm. yetti araf la mhm. alif laam miim boo ko calculé muy juróom-ñaar fukk ak benn alif gi mooy allahu juróom-ñaar fukki mooy kun te la jël innama amruhu isaa araada sa yaquloo kun fa yakun fa yakun ji daal métti mu ne bu dee fa yakun rek boo ne laal bouton bi lampe bi tàkk boo ne laal bouton bi kum lampe yi coupé métti mu ne gëndikoo yaqalu Cheikh ne ko loolu laay nekk mu ne ko loolu moom dégg laa ci am mu ne ko baax na ba yow ma jasaa si fa la wax asamaan sa te yoroon sëñ Adama ngi jaar fa ak sëñ Maxtaar Touré moom nga dégg sanaa Cheikh Bamba yónni leen ca bóor Cheikh mu sànni mbiram daal di cay mooy ba ñaar fukki fan fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la Badar jeex ci la Sëñ Tuubaa gisee ak Cheikh bu njëkk su ñaari mag yóbbu ko daal ko du ma la ko won te néegaloo ma te su mag yi wàllu kaamil la lu jàllu lay la murid saadix la borom ngërëmul yàlla la ku dugg xalwa yàlla ne ko Sadio wàcc naa doogu ne su ñaari mag yi yàllaa ko ne wàcc na arma gi laa jëkk bind ñëw naa àddina su mag yi kañ ñëw na yàlla sëñ Ibrahima Sarr dugg xalwatu génn yàlla ko sama leer wàcc na àddina sëñ ba tatu dëgg dugg xalwa sunu borom ni ko saa takk ndeer ñëw na àddina ñoom ñett ñu gisee ñun dañ ko seet gis jëmm ji gis leer gi gis takk ndeer bi ñoom ñu dox ba yem Mbàkke ka ñu dem ba gis dekkali sëñ fekk ko fa murid yaa ngoog murid yaa ngoog moo tax damay wax Mor Mbaye ku bañ ñu mag ñi sa maam defalul sëñ Tuubaa dara. d'accord naa nangu naa Baye Adama parce Sénégal soxla si. maam Thierno ne borom gaawaan ne Seera Fall ne ne ku yar ne ne ñu ne fu mu ko teg na ko teg ci aaya wala hadis wala benn benn ci xasida yi ay nit la fi indil islam ci Sénégal xaala Babacar ne ne Omar ne Ousmane ne Aliou ne. yaa ay ne Xadijatu ne ne Buxaari ne Muslim ne Imaam Malik ne ne dëgg la mu fi indi islam may ne la jëkk woon tubaab bee toj def dak tubaab ji église am déet hmm. Omar Fuuti départ Sénégal ci Fuuta dem Madina Makkatal Mukarrama fekk fédéral ba jiite mu ne ci ginnaaw kàbbar muy leen konoon kii du jullit ba leen di jiite. bu ma nee alxuraan rek faasix la naa fekk la ndax xare football ci amul kay fa sa jama si faan yi muta naadi kas law nu yaa rasul fakka laa moon sa kaaloon jëmoon ma gënoon karaw haji boo daaye laa waa amanoo bii fëgg bi ci fàllara ji fiti di përéwu ba ñëw France mere guy mere fuut fuuti tax ñu déplacé ko def ko ndar ñëw ko indi ko ndar ñu sant tubaab bi pour mu xeex ak moom ngir li ko feeñal gànnaar na màkka ñu ñëw ñu fuuta la dëkk gars yi dem sakk la dëkkeer euh, foofa dex gi mu ngi bàyyi ko ci lompul ak den la dëggeer ñu dex yaa ngi bàyyi ko fuuta jaar bawol jaar salum jaar kajoor ba ñooro maamu ndey tubaab yi jaaree ko ginnaaw dem sakk ko ngir bëgg koo lor ak ñi mu jaboote bi sëñ Tuubaa yooyu la yegg suuf moom frère Cheikh Fall ñëw fi am fi juróom fukki bitig ak téeméeri hectare ak fukk ak benn sant wi Fall ji jàngal ma tóola wadd téyër bàyyoom laay wadd moom Cheikh Fall moo ko jàngal moo ko jàngal ma tóola wadd bàyyoom laay wadd téyër réew maa ngi may dégg ku ko xam na ko laaj wala mu fekk ma sama kër. Cheikh Fall jël bàjjan bi. mu faat Fall waat bu taalu suñ Fall Fall suñu Abdoulaye Fall Ndar ak seenub jigéen. ñu ne ko Cheikh Fall looy ñawee mu pitaale ba ngoon yëpp mu si mu tuula wax mu toog fi daawu ndeel waayu doxul machine ñaari machine yi. fekk nañu indi sëñ Tuubaa ñeenti addiya kaani naat sémmiñ puso mu joxoon puso mu joxoon sémmiñ ni kii ci bopp bi ci kaaba yu réy ak bopp lonk bi gémmañam gi kii muy lii métier woo ñu ne ko dagg ak xar ak tàggale mu ngi ca biti dagg ak xar ak tàggale waaw daan ni taalibe yéen a génne ku ci mel nii yaa ne fi man waaye néew ma ci yow ko sëñ Moussa am na ñoo xam ñu yëngu ci bàmba ji su ñoo ne fi sëñ waaye sëñ Tuubaa néew ci ñoom ndax yàq bokk ak tas ak bokk ak tas yaakaar ak tànce ak xaste ŋàññante ak weerante ak yàq ab diggante la ñu ci bàmba ji ba du dundal dundee bàmba ji te dundaluñ ko dañoo ne fi sëñ bi waaye sëñ bi néew ci ñoom waaw loolu sëñ Tuubaa bi nga te boo ñaanee du am doo wàllu yu ku ñu ne murit saarix nga te mënoo ji ñëpp soble wala nga xool ko mu baax doo murid saadix te amoon na ci mag ñi barke samay faal mag mi ma mag ñi ma lay bëgg a wax Baye Moussa Sall Mbàkke la dëkk day dugg ci néeg bi fas li wajikal karim yi kullu man afisat labiyaat fi kulli sawan mu gën a leer lamp bi mu tàll loxo li ba tànn li muy tànn banque baaraam yi lumière bi dem dama jëkkee gis portable ñu taal ko génn làmp bi damaa yoo néew mën a bàyyi diw ne maa gis loolu laa la wax maa ngay wax. waaw déedéet ma ko ne sëñ Mor. 66 fekk na ma réete réew mi laa la nii atum sëñ Bichirou te 41 laa gën a àddina ala si takku tudd ma mën na fi ba 45 sëñ Moudou Moussa wàcc mën na fi ba 66 sëñ Bichirou wàcc. at mi mu wàcce ajjumaa ci dëkk moo ca mujj weer yi mu wàccee ajjumaa ca mujj semaine bi sëñ Basiru wàcc ajuma ca mujj am ak sëñ Tuubaa fukki at ak juróom yu ko kenn fekk lu bàyyi ko ci yàlla ñëw ci rasulullah ñëw ci jibril ñëw ci borom Tuubaa sëñ Basiru koy tànn analyser ko seet ba mu sedd mu ko dugal bindeef yi bàyyi suñ muntaxaa bàyyi suñ muntaxaa mii yàgg na jiitu mos naa ko wax gars yi ni am ku ma dégg ci télé mu ni ni ko bu mun taxaa toog muy door di favoriser di ko wax déedéet waaw ah, déedéet du ma favoriser kenn waaw ba ma ko suñu blaat di wax ak bi mu nelawee fukki at la man ak sëñ Thier Diouf la ak sëñ Baara Ndiaye ñuy ataaya ma nekk ci néeg Galas Amar moom suñu am nu Amar Galas Amar dina ma dégg ci tele bi may waxtaan ba ak am ku ne ma ku doomi sëñ Tuwaay ku ci gën ma ne ko ko ci miin mu ne ma diw ma ne ko koo ci miin bëgg ko ba bañ ko ci des da nga dem sawara sëñ Tuubaa doom mbooloo mu ànd di dugg rungu mi du ñu mbooloom bitil mbooloom saako lañu pour sëñ Tuubaa nag sa mbooloom mbooloom bitil la buñ leen ràjjee kenn toj <laughs> mbooloom suñ taa suñ mu Kane mbooloom saaku na. balaa dama bis bi lu ca xewoon. moom ci aju. xam nga mu ngi mel ni may wax may waxtaan ak nit baa muy la sëñ Tuubaa moo yàlla. doo doo avancé. ah da nga da nga ko waaw dama ko bëgg a collectif dama ko bëgg a collectif ba kenn kuy respect ak a noonu. boo yëg si ci miir bi jaaxaan. maa ngi dem sax fu ma toll. ah. mbooloom mbooloom saako. mbooloom mi juróom-ñeent fukki saako ak juróom-ñeent. ba ko téeméeri nga yàng ko sol ci saako yooyu. boo ko rombee ku xamul dara amul ba sér ab saako la. boo ko yullee muy mbooloo. ci mbooloo murit a ngoog. ñu murit ci senegal benn kàddu sëñ Muntaxa moo leen taxaat moo naa tax a toog moo leen mën a tax a jóg. mbooloo murit ci Sénégal. bu sëñ Muntaxa digale sëñ Cheikh jëmb bu xasee wax ba kuy bàyyi faal mbaa nga bëgg Cheikh Fall mbaa nga nàmp dara ci kooku Cheikh Fall ca la mu wax ci ngay ànd ñu boole gëm bëgg wóolu yaakaar doyloo wakkil fàggu fàkku ndigal gën leen bakkan gën leen doom gën leen alal gën a leen étage gën a leen taax te sëñ Mor Mbaye adduna loo fi wutta boo dee ba fi jënta xëccoo su daan ni lu kenn yor duy ko lu mu ci dolli bu ko fukk bokkee bu ñu goree dee yàqonte Cheikh Fall ak mag ñi suñu pare bind yetti deel jàng ko ñu naan da du di Cheikh Fall ne ah di di waxul loolu di ay dëkk lay wax dane naa fi bàyyi ko dem ndànd ak ndar ak ndakaaru moo tax fi pare tool maam Saliou kër maam bii tool maam Saliou waaw fii li foncé ne kër sëñ Moussa mm-hmm. moo doon kër Cheikh Rafal la menace mu jóge ci géej gi mu dem kër Baayam Mboor Jaañ mm-hmm. Baayam Mboor Jaañ moo jur mu moo jur Belees Belees moo jur Kalanoor Jaañ porte parole du sëñ Fallu mm-hmm. Cheikh Rafal ñëw di fu ñu ne nit ku baax nga fa Cherafal dem jàkkaarloo kooku maa jaru su demee dox bi muy seet bu ko gis ci kooku mu jàll ne ah kawe seet du kii am na koo xëy da koo yenu ba ca kaw tàndar ko ni waj daa def ñey waj mbindaa fën la woon moo xëy buy dox bopp bi day riis asamaan ci la leel jógee bu foree ci géej gi ba takku saan jot jant bëgg a sotta réegut day ñëw seet baleen ci géej ni ko sëq teg ko ci ci jant bi mu soos ni mburu mu lekk ko waaye du tëdd day sóoru ndax tànk yi xaju diggante géej géej yi Musaa ko jommal ci bismillah rahmaan rahim ci kilo mburu jox ko mu lekk ko fëri ni kétérié mu nangu ku séer a faal fëkk kii de ma gis sa ñaari ma géy nag hmm. am loolu ma dégg sax gars yi da ko wax naa daa yéeg ci kaw garab ga daanu déedéet Ah, loolu nekkul. maamante Njaay ñàpp ginaar jox ko ne ko yàlla la monsieur Bamba ba kumba yor am mu sukk fi wetam di ko mar amut. sëñ Tuubaa du jayil musta foofu bay ni bi. Seera Faal du jayil bay mar am ni wo ku lekk deretam lekk nga jëmm jë nàmp mi ñuy wax muy quatre vingt su liir bu juddoo nàmput ñu faj ko bu bu noppee nàmp faatu te nàmp mooy quatre-vingt-douze Muhammad lay firi weer wi deret a ngi ci am meew a ngi ci yàpp a ngi ci aw ñax a ngi ci suy nàmp ba mu rek ñaq wi doo ko laat dañ koy bàyyi mu nàmpaale ko ci daf jëlee aw fit ngor jom mucc wërsëg ab taar lu ko toog jot ci cheikh mi mëcc feeg nàmput merum baayam fi mu juddoo fi fere fi lay yàqoo fi lay defaroo kon Cheikh la mos suñ sax Cheikh Fall mos a gis suñ toit mu yoroon néew mu di ko mar. déedéet dañu sëgg ci gi rek ñu defal ne day mar te mënut suñ Mamour Mbaye. suñ taal daa jàpp mënu ko jàpp kaa di ko. suñ Cheikh Fall ni jël ni ko lii lu mu doon mënu ko seytaane moo may pitingal ngir ma bëgg a julli bañ a jàpp te mënumaa pitingal ba jàpp ma te loxo leen day topp ndox mi dana jàpp waaye du ma julli ta du ma jàpp du ma laal Alxuraan te ñëpp ma jàpp. sarfaan ni ko sab jaam de dégg naa bu moccee sam newoo néew ba day dellu ginnaaw waaye duutu jëm kanam mu ko bisimilah daal di tàllal loxo li sarfaan sëgg fan xaas fan xaa fan min moosin jàng fan Moussa Kane loolu la ko doon moccee man xaafa min moosin jànn fan man xaafa min moosin jànn fan ci suba sa loxo li wow Cheikh Ibra fekk ko Mbàkke Kajoor nag ci bi ko yàlla ne dama seeti ko ma boom borom moo la boom mu ñëw fekk ko fa fukki fan ak juróom ñaar yawaat du man ja ko jiñ ba ci ñaar fukki fan yi nu toog tey Cheikh dem ànd ak moom fekk ci gi gis Bàmba bisu dimanche di ñaar fukki fan ci koor mu ñëw sukk rab wax moom déey jóg taxaw déey dem ba sori moroom bi di siwaat suñ tànn xanaa sama gan gi waar na leen suñu Ibrahima Sarr ni ko eh kii wax la les la mës ta wax sukk ni jigéen di ngay wax mu sëgal ak nangam wala lu mës gis ci yow te xam naa nii mu def ku ni defut doo ci yow waxal ba jubóog moom lu ngeen jubóo nu maase ci lu ngeen bàyyi na ko si Ibrahima Sarr Ndiaye borom yónneen bu sori bi ci gàngeen ko teewul Mahfouz. di sàkk yaa xillu Ibrahima Mawlaaka xayri jasaaw mu naa daari ka wak ñu def ba jóg toog mu dégg sëñ bi ne ko loo fi amul yaa ko loo fi amul yaa ko wutut seere fàtt loo fi amul yaa ko yorut ko bëggee mu ne yar ma yéege ma yeggale ma ci yàlla marale ma ak sunu borom bu may kafatu dogal yàlla yi wàcc kaf rek kaf bu ma ko defantoo dogal yàlla yi wàcc suñ Tuubaa ko loolu daa seer munu ko loo ma ko jaaye jaral na ma ko mu ne ko ca at amee lu ma la mbubb amee lu ma la lekk du naan du noppalu du ker du attaaye du café du ndéego su ma la diggalee noppi naa ci mu ne ko loo ma diggal saaroo laa ci garanté moo tax suñ mu doon te nii bu la sëñ Tuubaa digalee mbaa ku sëñ Tuubaa digal la sëriñ boo ca gaaranteeg sa roo di nga def la nga bëgg te desal sa roo ndax ku lépp junni tere la ko gaa yàlla boo koy fay kenn du ko yëg waaye ku lépp junni foye ko boo koy fay ñëpp ciy bokk ndax da nga yelwaan ba ko xam naa boo daanelee foofu. bisimilah ñu ñu ñu ñu del si ndax yaa ngi ci fi mu ci sëriñ bi. waaw jaayanteeg moom waaw. war a tabbi ci jaayante boobu. tey guerre bi sax bëgg naa mu dugg ci. waaw participation Cheikh Ibrahima Fall ci réew mi bëgg naa mu dugg ci. Mm-hmm. mañ weer bëgg naa mu dugg ci tey kenn nelawul. <laughs> bi mu bi mu sukkee. waaw dama bëggoon. Euh, dama bëggoon nga. tënk waaw boo su boo àggalee sukk sukk bi rek. yeggale foofu ñëw sëñ Moustapha. ok bu ñu dellusiwaatee deuxième partie bi nga continuer jàll. bi mu yeggalee ci sukk bi. ci mm-hmm. ko yàlla digale. Mm-hmm. daaraam ba ci sëñ Tuubaa gàpparu xam nga sëñ Moussa sukk du sukk du màggal. dëgg la. julli sax ku ko def pour woo amoo julli. waaw mm-hmm. ah, fab xot teg ci sa yaari du julli. sungali <laughs> fab sa wenn xot teg ci. sa wenn xot teg ko ci wenn cistine du julli. Mm-hmm. sungali sa benn tànk bi ci silaat bi ci sa jëm kaw. du mm-hmm. julli. gàpparu sa njekkikaay li bàyyi Cheikh Ndaw di wax sa njekkikaay ngay teg ci suuf boobu boo jógee. ndax këll wu ne xam fa mu tege ak yi ci diggante waaw dëgg la de Mbaye Cheikh suñ fàlloo ko de wax dee ko tuddee waaye ci digg ba la am jaar maa la wax loolu peese yaa ngi déggu dee wax ñekkikaay waaye bu jaar ci digg bi dëgg la de Cheikh daal di kapp uh-huh. fam ñaar ñaari loxoom téye ci loxo sutura ndeysaan diggante këll sii nga xay fi la leeru góor yàlla di jolee mm-hmm. fi la dëpp bakkan yi ni fiix ba lex yi nuur mu téen gis gis arasa kursi musa gis taata sare musa sare leen te bàmba wër naa la ci jaww ji wër la ci géej wër na asamaan juróom ñaar wër naa la ci pii yàlla yi ndeysaan ndeke yaa fii oh ni mbaa maa ngi fii mbaa faal mu ne ko ñetti at mu ne ko baax na liggéey ko ci ñetti at manqué ñeenti weer ñaari at ak juróom benn weer la Cheikh Rafal premier Sëñ Tuubaa fekk mag ñi ñoom jur ñeent fukk la ñu bu manqué benn Omar xat bu xatab li jéblu ci rusuwaay ñeent fukk bu manqué benn la fa fekk Omar bon xatam mooy maanaam ak directement salaamaaleykum wa rahmatullah tubarkalla jërëjëf euh, Baye Adama yaakaar naa waxtaan waa ngi bëgg a neex mm-hmm. euh, sëñ Moustapha Sylla moom sëñ Modou Aminata Fall yaakaar naa dégg nga li nga xam ni Baye Adama moom la ñu tijjalee ci fi mu jaar ci maam Cheikh Ibrahima ba agsi foofu ci jëbal gi lan nga na ciy tegal bu mu nuyoo tamit bu njëkk mm-hmm. waa ñaari Baye Fall maa ngi nuyu nuyu sëñ Fallou sëñ Moustapha ak ah, ak ah, euh, murid yëpp rek di nuyu Modou Ndoye bi ma ak mboolem waa MSD yëpp ñu ngi seetaan. MSD euh, euh, li ma ci teg rek daanaka dama ci sof. def nañ Adama wax du ci ñëwaat. te sax daa mel ni déglu sëñ Adama moom ma gënaloon di wax. ndax ñu sëñ bi rek la ñuy fi suñu aada suñu aada tàmbalee léegi. ne guddi tey gii su baaxoon génn guddi du baax. daam ni ko sëñ Modou mi tabaxee. sëñ Modou mi tabaxee. sëriñ bi benn la murid bi benn la. sëriñ bi benn la murid bi benn la. sëriñ tubaay sëriñ bi sëriñ murid bi. waaw dëgg la léegi nag bi si yéex ba ñaanee ñu may ko lañ may ñëpp suñ ko gàntu woon du ñu may kenn. loolu sëñ Mor Binta wax. yoon wi ñu ne mu yoonu Seex Rafaal wi ñu nekk. Mhm. ab taalibe du ci am dara. borom yoon yi woowu taalibe yi murid la woo. Mhm. lan mooy murid nag ak kan mooy murid. lan mooy murid. Mhm. taalibe mooy baatub taalibe mooy ku sàkku ji rek. ku sàkku ji rek dugg ci baatub taalibe. maçon baag ministre baag yëpp dañuy sàkku ji sëñ Tuubaa li mu yor murit la ko jox Tuubaa laat bi murit la wax waaye newul ab taalibe bi loolu dama ko dolli ci ba lee Baay wax dëgg ci Baay Aadama moom suñu bàyyi taalibe ndax à 1976 euh, Paate Njaay mi ak Paate Faal ak Baay Abdou Waaw Moodu Faal ka Alaay Fay bu Ndooron Ibrahima Booy Baay Seex Joxaane ak ñeneen ña ñu ak ñooña sëñ mm. Maawa Jaañ ak ñëpp booba solo bi sama kër jëm sant yàlla fa lañ am daaray làmb mm-hmm. bàyyaara mii danaan kar ñu du ko awu moom mii mm-hmm. danaan takk déggam di sikkar ñu du ko awu waaye nag ñu yàgg xemeem nag ndax ñoom ñii seex moom ku jël mu dëgg rek ku la gis yomb xam jigéen sax soo ko mayee jëkkër gone soo ko mayee jëkkër su ñemee juróom benn weer soo ko xoolee xam ne dara nga fa oh, sàkkaane ko na ci yàlla ba ba toll nii mm-hmm. ko sa ñaarama li mu wax lépp lu mu dund la mm-hmm. ndax mën naa ne bi mu jógee Mbàkke ñëw Ndakaaru ci ñoom ñii ñooy suñu baykat bi bari na tey ci nag la ko wër ku xemmeem yoon ci ñoom ñi la jaare bu Busra Samb mi ma nga dëkk ci Touba Thiaroye yi mm-hmm. xam naa sax moom am na lu mu ci fàtte waaye dama koy fàttali yooyu rek dëgg la waaw kon bàyyi dama ñu ngi lay bu baax tey yi nag mm-hmm. dafay gudd gu am solo goo xam ne murit bépp kuy murit war ngaa xam tey bi la ndeysaan kuy murit war ngaa xam tey bis bi ban bis la demee ci sax murit di naan màggal Tuubaa mooy suñu indépendance déedéet bis bii mooy may murit yi indépendance ndax bu Cheikh Arafa gisoon sëñ Bamba mu màggal lu am Tuubaa lu am dara lu am kon ki tax lépp am nag bis bi mu ko defee mooy tey dëgg la ci weeru ko ñun nag génération bi nga xamee ne dañuy ay gone bëgg seex bi te xamuñu ko mhm. loolu mhm. dañ cee war a wax mhm. ndax dara gënu di erreur di dund ba dee te doo murit faute technique mooy du dund ci dara ndax dund dafa seer loo ko jeexal da ko war a xam sa dund loo ko jeexal da ko war a xam. dëgg la. ak dund dafa seer. ndax noogu dem du ñëwaat. Mhm. génn ci li ñu génn ci li ñu comptabilisé. Mhm. kon li ci des war nga xam ci li nga ko jeexal. dëgg la. Mhm. sëñ Gunda ñu ko wax maam Saliou Ñang ni jaay sëñ Mouride. en 1974 la ma tere tubéy tubaab. la la tere tubéy tubaab. waaw. tubéy tubaab mooy lan. lépp lu mel ni salopette ak ket lu lu ko aajo woore. lu ko luy nuru ak ak yëpp. caa yi daal waaw salopette mooy solo gat. mooy solo gat waaw salopette mooy solo gat mag du ko sol. Hmm. wax nga dëgg de. <coughs> dane ca dane ko. Hmm. ngunda mënu ko faa mu ne xam nga doole waamee. Hmm. ngunda mënu ko faal mu ko doom xam nga doole waamee. mu ne ko déedéet faal. mu ne ko waamee. su jógee tund ba jëm ca déeg ba lu mu fekk yoonu da ko yóbbaale bant yaag peer yëpp la yóbbaale ci déeg ba dëgg la bu sebetee yëpp ne ci kaw mm-hmm. waaye doom ndox buy dem ndox la yóbbu dem ndox la waaye doom ndox buy dem ndox rek la yóbbaale dëgg la loolu mooy nuru sëñ bi te nuru murit te doo murit mm-hmm. sëñ bi kenn mënu ko nax mm-hmm. nit soo jeexal sa dund nga li nga jeexal. sëñ Mor mi ne woon na benn nga ci am koo ko jox ko xam. bopp. nga ci am koo ko ne bakkan nag mooy sànni tàcc. barke bakkan mooy sànni ko jeexal xam ci li nga koy jeexal. Mhm. sëqa sa bopp. takk say kelen kelen ak say jóolee ak say lam loolu neex def ne see rafaal nga yaakaar yow ma xam doo gis sañaa dama wax lu junni na ko léegi Seex Ibra rek ku am xel di xalaat ni mu trouvé Sëriñ Tuubaa ak njëriñ yi mu àndal dafa mënu ko déedéet déedéet waxuma baatin nag saayir laay wax rek Sëriñ Tuubaa koo turwee rek fexe ba ñëpp jariñ ci te problème boo problème boo ci àdduna nag xam lu ko indi maa leen fi dégg rek maa leen di moom a ko indi hmm? kon nag yaa ñi moom ju dëgg la fi indi yàlla moom dëgg. wax na ko léegi. Cheikh ndeyam di koo gërëm bàyyam gërëm ko maam gërëmal yàlla. ku fooyee sa ndey fooyee sa bàyyi doom gërëmal kenn. loolu doo ko am. ku fooyee sa ndey. fooyee sa bàyyi sëriñ bu la di ngërëmal yàlla dalee nax munu ko. kon. Mm-hmm. ku tuddoo Cheikh Ibra ni Cheikh Rafal nga bokk. Mhm. da ngay xool ni ñi bokk Cheikh rek li ñu def si bi mhm. mag ñi nag kenn ko da liggéey da ko yóbbaale waaye jumtukaay yi doon liggéey yépp ngi fi. jumtukaay yi doon liggéey. yépp ngi fi. si mu nee nag lépp loo jëmale sa bopp doo ko am. dëgg la dëgg la. kon sëñ Moustapha bisu bi dafa am solo bari na ko ci yëngu sax te xamul li koy yëngal ndax yàlla dogal na maam Cheikh Tall Gallo mooy bàyyi ndey taal may ñaanal suñu mbokkam taale mi jiitu yàlla na ko yàlla mi ko wax sëñ Caam Saaliw ndey taal moo doon wujj yaayam man sa taal bu masaa ñëw usine ndox dama daan woolu yóbbu naa fa Cheikh Bintu mii di xalif moo dëbb laay ak murit mbay dama fa yóbbu dama fa yóbbu sëñ Cheikh Bintu Fall ne ko maam Cheikh Taal Gallo ngi si mu ne dama koy dégg mosuma ko gis man dafa ak moom mm-hmm. mu na ko yoru Cheikh Bintu mu la téye Cheikh Bintu mu la tuddee daa daa teel a gàttu fan. waaye dama la dal. ñu di ko laaj Cheikh Ibra mu daan solo. ak njaxase yii lu ko indi ci yoon wi. mënuñu Cheikh Rafal de mos sa son njaxase. Cheikh Ibra mu sosoon jaxase musta am jëriñ jaxase te nag moo ko daan toggal nag loolu nag lu siiw la de sëñ sëñ Moustapha njaxas yooyu ñuy wax dama ne Cheikh jaxase mm-hmm. maam sa lagal mm-hmm. bi muy liggéey sëñ Bamba mm-hmm. mbubb mi ñu sol maa ngi yow suñ ko bëggoon sori ren ba déwén football ñu jël benn max daf ci bu yàggee looy looy gis. waaw ko njaxas ngay ci yoon bi. Cheikh Ibra ku xam fi bokk xam li mu bokkal xam li mu doon xam li koy jiiñ dafa am loo xam ne da nga koy dépassé. te nag soo joxee exemple ci yoonu si xebre doo ko jox ñuy taxawaalu serval boo joxee exemple doo ci doo ko joxe exemple ñuy taxawaalu du seen bopp ku dóor sa ñu ragal dóor tax ñaanal sëñ Tuubaa ragal dóor tax ñaanal sëñ du dóor suñu bopp dëgg de dëgg xale karab naa ba ne aadama yàlla la yaram dañ koy defar mm-hmm. yër yi bu ñu ko sol bàyyi muy duñ ko sol mm-hmm. kon ku ñu tudd tudd Cheikh la sa comportement sa comportement mm-hmm. dafa wane dafa war a image Cheikh dafa la war a wane dëgg la dëgg la dëgg la tox sax waaye tox li ñu di naan li ñuy aaye di sol loo xam ne wóor na leen ni li nga sol moom boo ko sumee ku ko fóotoon tey musiba am nga tuddoo si yaram bokku ci te nag dugg leen ci fukki kër Cheikh Rafal yi ñu xam jigéen góor doo fa gis ku mel melokaan yi waa ñii nekk Dakar yu wër doo ci gis doo ko ci gis kon liggéey bi Cheikh Rafaal liggéey sañ Touba ba mu ba mu la ko jaay jëf ñun ñépp ci la xewlu mm-hmm. kenn mënu ko yàq daal sa ca yàqoo kon mm-hmm. suñu mbokk taalib bi nga xam ne Dakar yëpp mm-hmm. ak feneen fu dul ak koy xool télé bi rek teeru melekaan yooyu dafa am bind dafa am ji comportement boo xam ne ak jëf joo xam ne nit waru ko teg boppam man de kër ga ma jógee muy ko si mu sa ndawal da tàng la ko kalam mbéj waaw loxo ca kalam waaw tàng loxo ca kalam man sëñ mu sa rek laa xam ci laa tàmbalee ci laa yem mhm. sëñ Modou rek man kenn defu ci man dara lu la ci man sëñ Modou daa ko jëf. c'est ma kenn ngir bëgg nga ñaanal man lu ci lu ci man doy ñu sëkk man ko bëgg xam ne ma ne doomam nag waaye ku ne mas naa toog sëñ Modou ci benn jataay benn jataay nga toog sëñ Modou mu wax nga dégg ko soo fa jógee foo dem loolu day doy doy ab téere ci yow bu doy sëkk loolay bàyyi faal dëgg di xadi mu sax sérif soo joxee exemple da ngay ko jëfam ji muy jëf jëfam ji muy jëf li mu jëf ci 30 jours yi fanweeri fan yi ñi woor lim ji jëf am na ñoo xam ne seen fanweeri at mënuñu ko te du ko mos soo joxe exemple loolu nga joxe exemple waaye nag ku du gudd fan doo am barke loo def loo def mu jig la ku du gudd fan du am barke lu mu def mu jig ko Cheikh Fall kenn du ko fooye Cheikh Ibra ku ñuy waggar la Cheikh ku ñuy ku ñuy ku bàyyi xel la ndax tey ka gën a naw ci yoon wii tey def ko sa kilifa li Cheikh Fall def ca kër ga bu ko fa génne léegi nga yam nga yam ak moom baa nga tane sëñ Adam wax na ko léegi yoon yépp Cheikh képp lañ sëñ Tuubaa rawe kon Cheikh Rafal ku ñuy war a bàyyi xel la ku ñu war a jox cër la cër bi nag mooy jomba def lu lay fekk jomba def loo xamante ku la ca fekk xam ne sëñ bi tax naan lañ naan loo ma déggal ma def loo ma tane bàyyi ko déedéet da ngay ne ci diggante doo gis lu muy tere loolu la yoon bi baaxoo. Mm-hmm. waaye xam nga def heure ñu lay koy tere déedéet. Mm-hmm. loolu du yoon bi. Mm-hmm. loolu nag ñi nga xam ne dañ ne ndax Cheikh Ibrahima daa waxoon ne sama yoon wi doom ku ci sori ci njaaloo. dana sama yoon wii ku ci sori ci njaaloo. yeneen yoon yéen terexe yi ngay dégg yépp ka fa gënal sëñ bi mooy bàyyi faalu kër ga ka fa gënal sëñ ba amuñu benn turuñ ko mën a jox lu dul bàyyi faal rek kër yépp nag laa wax suñu amoon weneen turuñu ko tuddee tudd ko loola waaye kër goo dem ka fa a sëñ ba man fa man ci ndigalam mañ ci soxlaam man ci jëfam bàyyi faal ba lañ koy wax kooku nag ku bokk ak moom biir ne ci mbiram dafa am loo xam ne nga ko a jomb sax am loo xam ne ku ku ku kuy tudd tudd seex bi ko war a jomb ndax kat waxuma sëriñ seex jëmm waaye sëñ Muntaxa mii rekk di sëñ Touba dox suñu diggante ak sëriñ Touba ku ko xool bëgg nag moo sa kilifa. te te te nga koy jaaree sa jëmb war a am sa bopp. bis bi liñ Seex Ibra indil liñ Seex Ibra indil kenn ku ci nekk da ngaa war def sa analyse bopp boo tëddee ba guddi fay say làmp sàngu yow xam nga yaay kan. waaw ah, dëgg la de. ku tëdd guddi. Mm-hmm. fay sa làmp sàngu sa mbàjj. yow boo baaxee xam nga boobu bonee xam nga soo di mur xam nga boo def saay saay xam nga ko sëñ Moustapha Cheikh Ibrahima Fall am na ci loo xam ne du ma dugg ndax sañ aadama waaye li ma bëgg te sañ koo wax rek moo ñuy yaakaar Cheikh Ibrahima te ñu nekk ak ñoo xam ne dañoo ne dañoo ne ci leneen bu ñu may kenn bunt bu mu jaar ci Cheikh Rafaal wax ko lu mu ko war wax ndax Cheikh bi lu war a def lépp def na ko bi mu fii ne ci saayir génération bi mu fi nekkaloon te yi doon ñi fentoon yoo tarixe yii fi nekk bi mu Cheikh Rafaal ne ñi fentoon yoo dafa nekkaloon ba Ibrahima boobu damaa wax ne ma keroog bi alaaji Malick nelawee 1922 jëbb la fekk Cheikh Rafaal ne ndaw si ndaw li ko tàggali si Cheikh Ibra jëbb la ko fekk ñene maa ngi toog bi mu dikkee ne nuyoo ñu fay ko ñu ne ko yow teel nga xëy loo xew mën nañ maa yebal Malick moo fi bàyyi ko bii nee na bi Cheikh Ibra génne ñu nuyoo ko mu ne ko ana jóge mu ne ko njaarim laa jóge dañ ma fay yabal si Malick dafay bàyyi ko maa ngi di ci commentaire Tijaan nag ni ñuy def léegi nag ni ngam alaaji maa ngi neloon la seerafaal ni leen Cheikh Ahmed Tijaan mi fentoon yoon ba mu fi bàyyi ko du man lu Tijaan defoon maag sëñ Bàmba dikkuñu fi ngir màndarga tarixa yoon wi lay jaaroon lañ fekk mu saxab gaj ji ñu gaj ko ba mu leer ma gaj ko ba mu leer sañ Bàmba jiitu ma topp ci sëñ Bàmba jiitu ma topp ci doom nag yoon wi bu leen xool maa koy wommat bu leen ma xool ci yoon wi fu ma jaar gub du yoon fu ma jaar mooy yoon wi bu leen ma xool ci yoon ku xool doo gis kooka ku ànd ak moom ba nga koy mbubboo war nga am beneen comportement bu di kar oto yi yor sa kël tëdd ci oto yi di kar nit ñi di péetri bi nit ñi loolu du bàyyi faal loolu ak wuyu la ak toroxtaange la te nag ku sa àdduna yàqu laaxira koy raw sa àdduna yàqu sa laaxira kon nañ góorgóorlu bu baax suñu àdduna defar ko defar suñ jëm yi ndax Serigne Touba rek ak Cheikh Ibrahima ku ànd ak ñoom war nga defar sa jëm. bu baax a baax ba ko gis xaymeem la. suñ mbokki jigéen ñi ne ci waañ yi ndab lu takk sax ndab lu takk sax duñ ci yàkk añ. ndab lu takk ci yàq reer. ëpp ñu fu la yàlla nag. kon nañ xam li ñu am lu mu doon. dañoo am ngeen ji alal suñ moom sëñ ne ngeen ji alal nag ab saay saay du ko am suñ moom nee na ngeen ji alal saay saay ko am suñ saay man la ëpp xaalis ci banque ba dàq la soxna dàq la woto dàq la kër waaye li mënut am nag muy ak taalibe bi muy ak murit mënu ko amaale moom kon loolee ngeen ji te alal nag fi borom fu mu dem da koy yóbbaale wërsëg nag fi lañ koy baax. kon ndegam suñu alal mooy Cheikh Ibra mm-hmm. mooy suñu gànjar mm-hmm. Cheikh Ibra mooy gànjaru yoonu murit mm-hmm. bu suñ Tuubaa doon yonte mën a arxuraan ji mooy Cheikh arxuraan yoonu murit kon yàlla mos a yónni dala jox sa téere ko yàlla mos a yónni ko yàlla mos a yónni dala jox sa téere ngeen daale alxuraan yoonu murid ma Cheikh Fall nee na yoon wi nag lu ma defut bokku ci def ko ci duy teggin toxuma ci naanuma ci njaalowuma ci lu ma defut bokku ci mm-hmm. lu ma ci def nag lu ngeen ko xem ne nag xem ci la lu ma defut lu ngeen ko bëgg-bëgg bokku ci te nag da ngeen di xool kan mooy sëriñ Touba ak ko bi Ibrahima Serigne Touba bi bu ne niveau bi seen sëñ Touba ne ki koy jëfal te lu mu ko jëf mu nangu Serigne Touba lu ko Cheikh Ibrahima mas a jëfal nangu na ko kër ko dëkk na ci néeg bu mu ko takkal fanaan na ci xéwal bu mu ko jox xéwloo na ko ak Serigne Touba kon kookee nag diggante boobu ku ci ne. war a xam fooy ne. kon nag bàyyi dama dalee sant bu baax ndax mag ñu mel ni yéen dañoo war di wax man day lii sama gars yi rek ko man ci man la ndax man fa ma jógee ndax man ki ma yàlla boole mosuñ Modou Binta mosa wata màggal amul si amul dara ñu amuñu màggal amuñu ziar wóotewuñu dara lu may bu ndigal jógee ñu dem ci bu jeexee liggéey rek képp. sama sàmm yaa ngi amut ak màggal. wóotewul fenn màggal. wóotewul fekk ziar seen rajo dara fu ndigal jógee daal muy jóg bu ndigal tëddee mu tëdd. dégg naa ko waaw. moo tax bëkk néegi ne woon fekk dikk kilifa yi mhm. day njëkkante ñëw fa moom dafa am benn bis boo xam ne xel koom dafa ngelaw ngelaw lu xob tuy sëñ ba ne ca àll ba man maa ngi ñeewoon sëñ bi ci poussière bi ak ngelaw li mbax ci doom ji sëñ aboo faal mi may dégg mi ngi koy suivre sëñ aboo mhm. maa nag moom sa jili ña dem fa moom mer ma mer lool ci woo gi sëñ bu woo ci poussière bi rek sëñ mu rimte na ci àll bi poussière bi man maa ngi tàng jiir sëñ abone ma sëñ Moussa yow xamoo li xew maanaam mu ne ma sa sëriñ daa mel ni entrepreneur bu gagné marché waaw say mu ne ma sa waa de xam nga lu mu def tey maanaam mu dafa mel ni entrepreneur bu gagné marché moom ba lu jeex xam sëñ mu foofu la tool kon nag war nañoo xoolaat suñu taxawaay bu baax a baax suñu taxawaay. di sant nag. bisimilah sa ñaar waaw. tuxumoo. Baye Mamadou li Baye Mour ak Baye mu taal ñu sombi boo xëy doo nga yaa ngi ci biir. Serigne Assane. waaw. Mhm. doo ngay nag boo ko déggee mooy sumb forox ba sax yi ne ci. Mhm. mu sotti ci gamin sow lii tërëb ñor lii tërëb tiir lii tërëb diw sumb lii tërëb lem nga bu ko dugg si gii di doo ngay dox ak sëñ Moussa Ndiaye moom sëñ Lamine Ndiaye naa naan leen sombi kët day somb góor ci yàlla sombi day somb góor ci yàlla nu ñam am ku dari bakkanam dari jóg ñu ne bakkanam a moom kat waaye ku def bakkan si yilimaan dina la julloo jàkk ju leen yaxut daan ni toog leen nag ma waxtaan a yéen mbaa bokk leen ci ñi tuddoo Seraphaal di toq ah Fall bay maam ko ni ko ñëwewuñu ko de mu ne ku ko ñëwee ñëwee sa musiba ah, waaw waaw Serap Fall nee man ñu ne Fall day gàttal fan di xañe wu di tax a day dem sax ah, waaw soo amul sëñ bu mel ni sëñ Bamba Mbaye mbaa Serap Fall te dañ dem ba jamono mu jamono danay rafale mhm. loolu sëñ Moussa wax gone dañ ñuy bëgg waaye duñu duñu gëstu te du laaj mhm. te duñu toog ci ñun ba déglu ndigal te taalibe saa yi nee ci luñ ko te luñ ko tere ba ñu ko ne bàyyi ko ne yeer dootul taalibe mm-hmm. dootul ab taalibe dañu maam ko li mu faal mu ne Cheikh Rafal mu sa xuppoon jar xorom polle jinjër poobar mm-hmm. kaani gu sew mm-hmm. la boole la daan boole dëbb ko ba mu def sunguf bu dënn bi bologee maa wax bologee nag waa bu dënn bi fàttee ne ne bi yàlla fenkalee jett bi yett yoon ci seen saa ca Badar ca la dënn bi boole ca la dënn bi la su ko dikkalee day fekkum ñulu gi rek mu tàng ci mbàttu mbaa potub la ni bas naan bu ko dee nopp yi léppay ne saxar bu ne bu ne gër gi mu giif waaw mu boole jar xorom poole ji jëkk kaani gu sew ruux tànk bëy def ko ci hmm. mag ñu seen muy saxar ñu di ko toppandoo muy duggee hmm. duggee duggee doom ponkal du la romb di daw képp nga daw topp ci taxawu fu muy àkke ji hmm. soo yëmul soo yëmul ak moom ay jéego la muy daw dina la jàpp hmm. bokkuma ak yéen de bu leen ma ko ci dara loolu hmm. sukk jébbulu ak joxe addi ak déglu ndigal te bàyyi fi tere yi am ko ni onsu billaahi mun ko muccoo ci de boo bëggee mucc seytaane fa mu toxoo da nga fay dëkki fa mu sanc nga bàyyi ko faw ci ndigal la tuxoo bàyyi ci dëkk ci tere. Mhm. soo mënta bàyyi tere mënoo tàggoog seytaane. jërëjëf ba def ko mhm. waaw xam nga xam nga xam nga mhm. li si ñaalam wax léegi. Euh, ci génération bi gone yi. foog nañ ni am na melokaan woo xam ne jàpp nañ ko ku ni mel rek koo koy bàyyi faal. te am na ñoo xam ne. réere nañ loolu li Baye Ablaye Faye ñu ko wax bu gàtt ni la ko Cheikh daan wooye ma gën a ko ceytu daan soxal mu doon soxal mu soxal seexalu mm-hmm. gën a gi mu Baye Ablaye bu daan tux moo ko soxal gën gi Baye Ablaye Faye ceytu mm-hmm. Mm-hmm. bu gàtt la ko daan wooye ma yoon gise lii gise lii daan def li muy tux ak la tuxukaay ga ca biir te ko daan def ci gise Baye Ablaye Faye bu gàtt ko daan yor kii dafa am loo xam ne dafa am xam lu ma ko mën a euh, expliquer lii ñu tox lii rek te ko defoon ci néeg bi bu génnee fii rek doom doo ko mën a jege li ci njëkk rek mooy maat service yi kon nag te doo dem ci kër si Arafaal genn ci kër yi ba fekk xalifa toog di ko def te nag ñoo a roy xanaa. waaw dëgg la sëñ ma dem ngay biir la mu yor euh, Adama xam naa sëñ Mamor. bala ñoo jàll rek euh, dégg nga ñoom ñaar kenn ku nekk li wax. man jàngat nga ci def bala ñoo continuer. waaw sëñ Moustapha jàngat bi ma ci def mooy ak nite laa ci jànge ak bëgg sa bopp ak xam yaay kan Cheikh Ibra bi njëkk mooy ni ma déggee Baye aadama wax ko sëñ Moustapha wax ko mooy mooy tragu sëñ Tuubaa trag trag mooy affiche mm-hmm. boo seetloo bi sëriñ Tuubaa ku mu mës a seexal ku tedd bi suñ maam ñooñu ci dugg mooy waa. waaw waaw waaw ñooñu gunge. ci ci ñooñu gunge ci li nga xam ne gis nga xeetu xéewal yi. yi yi na moom man maa ko xam. ñoom ñooñu bëgg ñëw moom xam naa lu mu doon man man xam naa ko parce que. preuve preuve rek la la la police bëgg. te ku ma laaj ma wax la li li li li ci xew nag. Euh, euh, kii bi dëkk waaw euh, ñu ñu bàyyi. waaw waaw. ñu leen di ziar bàyyi Adama Sarr. Cheikh Saba. sëriñ mhm. bi. waaw waaw Moustapha Sy Sidi Ndiaye nag xam naa xel maa ngi ci waaye dañ laa quarantaine mënoo cee xew bi sëriñ bi Ndiaye. kon ba tey ñu ngi ànd ak. xaaral ma ci sama nuyoo nag dama am lu ma fàtte ndax xel day fàttu ndax euh, dañu ni peccum liir bu neexee ndey ja moo jàpp ca mbagg ya ñi ngi nuyu président de la république du Sénégal ak euh, njabootam muy soxna Marième fay sal ak Amadou Sall doomam ak l'ensemble du gouvernement di bereel nuyoo directeur de la sûreté urbaine ak directeur de la sûreté nationale ak euh, police nationale ah di di nuyu aussi également euh, le ministre des forces armées ak le général de la gendre gendarmerie haut commandement de la zone militaire ndax euh, l'amiral bépp cérémonie boo xamante ni mu ngi am euh, l'ensemble du gouvernement ak ñiy def les grands événements fa la ñuy commander lépp loo xamante ni lu ñuy lekk la bu ñëwee fii Touba TV aussi am sunu kóllëre di sunu xarit. Euh, di fa xewloo bokk ak ñun lépp muy Cheikh Anta Samb am tamit lu mu doon ci kër gi ndax kenn ku ne xam na ni Cheikh Anta nag digganteem ak yoonu murit ñëpp xam nañ ko euh, euh, muy loo xamante ni baatin la ndax maam Cheikh lañ ko tuddee te Mbaye Adama Sarr duggee ci waxtaan wi bokk na ci yoonu murit di ci yëngu di ci sonn di ku baax ñu koy beral nuyoo également di nuyu ustaas yi Euh, Oustaz Alioune Sall ak Mbacké Sylla mi muy àndal euh, di nuyu aussi euh, Ablaye Diop Bichri waaw di di nuyu sëñ am co bu muy dugg si di nuyu Makhtar Sylla di nuyu aussi di nuyu Makhtar Sylla di nuyu ndax bépp nit koo xamante ni yaa ngi yëngu ci réew mi di am événement wala ngay ñëw ci bis yi ah di ngay ñëw di commander. ndax euh, Lamine daal euh, comme ni ma leen ko waxee en 2013 la ñu def construction bi matériel yi nekkoon Italie ñu indi ko gën liggéey bi commander ay bagages yoo xamante ni yombul ci réew mi. bi ñu demee ba nga xamante ni tamit euh, soxla nañu boulangerie. dañu dem jënd marque Bongar zéro kilomètre pour gën a yombalal nit ñi liggéey muy def mburu xam ne mucc ayib la. nga xam ni ku daan dem Almadi wala biir Dakar ak embouteillage bi. Mhm. da mujj yem stade Léopold Sédar Senghor. ñu ànd ak personnel bu xarañ. Mhm. Euh, lépp luy croissant lépp luy salé. Mhm. ñu ngi koy def ci euh, ci anam bu mucc ayib. waaw nga xam. leen waaw nga xam ni aussi euh, sëñ Moustapha sëñ Mamor Mbaye dañu am mbégte. ndax sëriñ am Diop mii sunu xaalis ñu ngi koy nuyu. di la ziyaare bu baax. liggéey bi euh, euh, ni ñu comme ni ma la ko waxee dañ ko gën a améliorer ndax li waarim soxla la ñu andi soo gisee man la ñu ngi sant président de la république mooy am réew ku fa samp loo xamante ni entreprise la di xëyloo cent huit personnes ci benn entreprise bu la état doon xooqatal wala ñu lay tas da ngay xat di nuyu maire bu Patte d'Oie di nuyu maire bu des Parcelles Assainies muy maître euh, muy Moussa Sy ñoom ñëpp événement yi ñu am foofu la ñuy commandé seen lekk ak lépp lu ñuy soxla. Euh, di ñëwati rek ci comme ni ma leen ko waxee muy njaboot ak Serigne Touba Xaadimu sol ginnaaw bu nu ci yàlla boolee nu nangu ko. Euh, Baye Adama Sarr daf ni guddi gi ci la ci la ci la lépp baaxe muy guddi gi Cheikh Rafal dajewoon ak sëriñ Touba. nun nag dañoo bëgg a baax ne faaw muy jàll ak li ñëw loolu Baye Adama saar loolu la wax. Euh, ñu ngi bëgg a bëgg sàkku ñaan. Euh, ñëpp ñaanal entreprise bi. muy Lamidal ndax loo fépp ci Sénégal fi ne ñu ngi fay sosi fépp foo xamante ni nit mi ngi fiy def événement moo xam cérémonie la moo xam mariage moo xam euh, nga am ay gan sa kër. soxla dañuy def livraison Diourbel Touba à travers tout Sénégal ndax personnel bi euh, macha allah xereñ nañu ànd nañu ak professionnalisme ndax nag lekk moom buñ ko wax hygiène moo tax. béréb bi ñoo ko moom waaw numéro bi mi ngi nekk 77. 534 87 43. 534 87 43. ëpp naa bañ a woon mooy numéro bi en face Léopold Sédar Senghor pré pharmacie euh, Chérif Fatou. boo mhm. ñëwee dinga nga fa fekk personnel bu xariñ bu ànd ak ak taalibe. Euh, lépp nag ñu teg ko ci ndigalul Serigne Cheikh Abdou Khadir Mbacke mii jëwriñu. Euh, borog gi mhm. di wasilaaw mhm. euh, njabootu sëriñ Tuubaa di sos foofu mhm. lépp ñu bëgg koo ci sëñ bi lañ ko jële bëgg ko cee delloo euh, képp kuy nit ku baax ci réew mi di am événement wala nga soxlaloo jëfandikoo sa kër li dale ci miche wi euh, saaf gambas dibi pigeon gastronomie mburu lépp boo ñëwee da nga ko fa fekk coof lépp lu nit di soxla su fekkoonte ni tamit méchoui la wala ay xar yoo xamante ni da ko soxla. Mhm. soo ñëwee dañ ko livré ci anam bu sell. ànd ci ak professionnalisme. Mhm. sëñ Mamor Mbaye. ñu ngi mhm. leen di sant bu baax di leen gërëm. di ñaan guddi maam Cheikh kii nga xamante ni. ci comme ni ko Baye Dama Sarr waxee rek. defaru bu amul woon defaru du am. sëñ Am Diop léeg-léeg du sàcc di la. yàlla na waaw sëñ Am Diop xam ne dafay ñëw. di suñu wóllare xam nañ ko bu baax. Euh, ñu ngi leen di sant sëñ Moustapha. jërëjëf euh, ñaan yàlla def tawfeex ak taysiir jasaakumullahu ana xayran jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Massamba ñu ngi waaw baadama mhm. waaw sëñ bi waaw par euh, par Demba bi tey waaw mhm. euh, bàyyi na su waajuram mhm. sëñ Tuubaa da koo joxoon tafsiru Jalaalayni Baye Niass. waaw. Mhm. Cheikh Ibrahima. waaw. dëgg moo ñu Cheikhul Islam. Mhm. Mhm. ñam yi ñu joxe. Cheikh Rafal suñ toog da ko noon boo bëggee dabe. da ko ne luy luy tax a dab góor yàlla yi. mu ne ko dabe ay dab. daanaka mboolem li ñu yóbboo ci yàlla ci àdduna joxe aw ñoom ci gën a gaaw. ginnaaw bale root taxan joxe ay dab sëñ Saliou ni bisu màggal gi ren di xontu xol yi mu màggal de moo tax plat yi bu ñu ko dana ma yàlla baal bu ko ab kaata toggan jox koy jur ñu lekk ko bu kenn ñaaw njort ci ne day dem sawara ndax yàlla ngeen mën na loolu mhm. sëñ Fallu fanaan na fi nit guddi tey ku fanaan ci rek mhm. dem ngaa jëna di nga dem àjjana mhm. am ko kon nangam nangam yi nag mu ne ko lu seyoon am séddaleel képp kenn tam siis <laughs> waaye dama jërëjëf uh-huh. bi jumaa ji noppee mu jullee ko ndax suñ fàllu ñetti téeméeri àjjuma ak fanweer ak ñetti la jiitee jumaa ji jëla zun bi Senghor ñëwee toog ci minbar bi ak i Santiago ak costinam gars yi allah akbar sëlmal ñu jàppati loxo li wala bëgg naa ni bu kenn bu kenn sam xel de maj maj nag mhm. kenn jëwit nag tekk rek ah li mooy waa ji di julli te du waraf. nga andi ko ci jumaa ji julliwut. mu ne moon àjji na lëgëm de. am ko ni ah déet moon nag du jullit waa ci yoon niw ci. dëkk bi di Tuubaa maa fi raw. ma gën bàyyi. maa la ko wax moo fi gën bàyyi de. saa bàyyi fa ëpp fit. moo fi ëpp bilaay. moo fi ëpp baatin moo fi ëpp jom moo fi ëpp ngor. moo moo fépp ngërëmu yàlla rasul la yi te lu mu doon laa doon lu mu doon doon mu ko daal di jàngal ma suñu tukkaam mu jàng ba ca xit mag sa leen nañ gabar noonu seen sansa ba di xit mu ne lu mu doon ñu ne ko kël bu la de wala fi neb xaaj mu ne waaw gaa yooyu ak seenub kël bu ca àjjana mas moom ci biir rek mu ne asaabu kaf yi waaw maa la am ko am ko ni déet mu ne ko yéen a kër ca àjjana bisimilah sëñ Moussa jërëjëf Baye euh, dama xam naa ni fii nga nekk am na solo buñ dellusiwaatee léegi ci yow rek loolu nga yeggalal ñu ko ndax sëñ Mamor xam naa bi ngay jël kàddu ci la mbirim suñu mbiru sëy dañu ko sëñ ma ni gisaguma ko mu xéwlu damaa xamul. moom sëñ waa waa waa waa kër sëñ Saliou café ñu indilaat taasu tàng parce a a dama koo fàtte woon. waaw euh, sëñ Saliou. waaw wan wan. waaw bàyyam moo doon yilimaani. jàkkaay sëñ Moussa Bassirou ca Kër Xaali. Mm-hmm. bàyyam sëñ Bassirou la tërbiyee bàyyi ma ko jàngal ba mu miim ba xam. dëgg la tubaab suñu saali woo ko tër bii. jërëjëf sëñ eh, ma ñëw ma ñëw ma ñëw ci yow léegi. ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ma ñëw doguma la sax nga baal ma rek maa ngi ñëw ci léegi léegi sëñ Mamor. nga matéral ma rapidement rek bala ma ma continuer ndax. programme bi ma déglu bi ngay wax la sëñ Amidou Diop dugg si. Mhm. xam nga ni moom yemul ci animation kese mais. Mhm. waaye day superviser. tey daa xool si tey. ñu ngi séentu sox yeneen kilifa. dañ koy bañ a wax. dëgg la sëñ Cheikh Diop Baye mi ngi ci si waaye sëñ Moustapha li ñu wax léegi ci seen Ibra dafa doy sëkk. mooy dama ne kuy publicité fa gën a xumb ngay taf sa traat. ci ne bi ngay jàngul. affiche yi danga naan nañ xool Carrefour. même ñiy jaay boutique sax. da nga naan marketing bi bu ma koy jaay. fi mu ne laméral. dañoo seet foo xamante ni foo placé la ñu def ko fa. dëgg la. sëñ Tuubaa ku mës a seexal lan la lay wax. Mhm. demal ci sa dëkk ba nga jóge woon. mbaa mu jox la suuf ne la sosol dëkk. Mhm. Cheikh Ibra Fall bi nu koy yebal ndar booba ndar géographiquement ni mu mbar ni mu mel. Mhm. ndar kese moo ni bindoo. dëgg la ci Sénégal dëkk bu am embouchure. am langue de barbare am dex am géej aigulisé ne fa. sapel ne yenn fa. ku complexe doo fa yóbbu ki nga gën a fonk sëñ Tuubaa moo ko ne demal ndar dugg ci bi marché ya aw ca nit ñi ba nu xam man sëñ Bamba maay kan kon Cheikh Ibrahima mooy girif sëñ Tuubaa mooy tragam mm. sëñ Safa euh, sànq gis ngeen li ma sol mm-hmm. moom moom moom nga sol ba tey parce que mm-hmm. ki ñu ko jox mm-hmm. mooy suñ Jiili Seck noo ngi koy ziar ziar bu baax baabu suñ baabu Kumba Cuun di leen ñaanal di leen nuyu au passage waaye suñ Tam si Njaay daa jot ndigal ci sëñ xaadim Diagne moom sëñ Mbàkke soxna Lo. dëgg la noo ngi koy siyaaraat mooy juróom yu baax ku baax. mu ne ko maam Moor mënta bañ a sol loo xamante ne yaa koy ñaw waaye ci sama magasin lay jógee. moo gën dox ci ay yitte. yow sa bos pareegul. dëgg la yow sa bos dañ ko doon ñaw. Mm-hmm. mais euh, ñu génn sama bos denc sa bos kontaan naa ci trop parce que sama adversaire bu bu bu mm-hmm. mais sëñ Tamsir nit ñaa ngi naan ma ñaw bi. kan moo ko ñawal sëñ Sidi Ndiaye ca France.

87 87 64. 64 ku ko bëgg a jot rek pour mën a am bu mel ni bii nag du yomb parce que ki ko sol la. Mhm. loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax. tubaarkàlla jërëjëf. Euh, waaw sëñ Massamba xam naa kon benn min rek ndax damaa bëgg a dellusiwaat. damaa bëgg a dellusiwaat sëñ Massamba bu ñu ñëwaatee. waaw waaw maa ngi ñëwaat ci yow yow xalaatal li nga bëgg a wax rek. programme bi laa bëgg mu continuer rek. tey ñu nag waa Lamine la ba fajar bi bu ko defee sëñ Mor sëñ Mor Gueye lan bëgg moom it mu jug euh, ñëw xam naa ni barkeelu bi muy njëkk a def ci xaside yi day taxaw nii rajas jàng xasaayit su dellusiwaatee door a mën a toog nii ndax gaa yëpp ñëw nañ ak kii kon sëñ Mor xam naa bu ma nee jóge foofu rek ñëw nii ci taxaw nii jàkkaarloog gaa yi na ko micro fekkee foofu sëñ Mor ñëwal sëñ Mor nag mu taxaw noonu ñu jox ko mikoro joxal ma ko baal ma euh, caméraman bi joxal ma ko micro bi sëñ Massamba yor. Euh, nañ ko jox micro bi mu ñëw toog maam Cheikh Anta moom tuuti. may mu toog foofu yëkkati xasaay dama bëgg mu jàng xasida ba noppi sëñ Mamor. Mhm. door a ñëw toog sëñ Mor. Mor defal ñëw taxaw nii foofu lañ la programmer ngir nga yëkkati xasida boo noppee di nga toog ñu di ñu waxtaan ak yow li ñu bëgg a waxtaan ak bu maam Cheikh Anta jógee bisimilah kon euh, maam Anta. kon yëkkatiwaatal ñu xasida incha allah bisimilah. yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa man qabal tawbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana qabal tawbana على وسيلتي سفيع الكريم محمد ولا وساب مغفر ذنب فيه نابا هذا وإن اليوم خدمتم من كل ما جنن مصطفنتم إزدان جل عمري في خير طاعة الجلال من الخير فرق أذي رجالي فقلت تائبا بلا تردي مرتقيا فنزل غيري يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل توبنا بجاي خير كل خلق أحمدا عليه سلم ثم سلم سرمدا واغفر لما تاتي بجناني واغفر لي ما نطقت بلساني واغفر لي ما لمست بيديني واغفر لي ما مسكت رجليني واغفر لي ما نظرت بالعينين واغفر لي ما استنقت بالاذنين واغفر لي ما أكلت بالبنوى بفرج خدا سيت يا رب السماء واغفر لما قدمت بظلمك واغفر لما أقرت بمنك واغفر بجوارك لما أسررت واغفر بلطفك لما عانت واغفر لما علمت يا ذا الكرم من جنايتي وما لم واغفر لما حفظك في يمي أو في أتى بيوفك وآتني خزنة في دنيا وفي عدل ويسر لي سيا فلا تبايس عبدك ضيفا بدفي إذن النزلة واغفر لهم وفي لوالدي وفي لكل من يميل إليه وفي وسيق ذاك سيق ثم سيقي ولجميل مسلمين ترى والمسلمات ليلهم مجرى وسليت ما صاب قد كفى على سبيل سبيل المسرى ولا nal tayyib xabul mam Cheikh Anta yaa gëm Bamba yaa tër yaa tebe ci gëm yónneen ba jaaraama mam Cheikh Anta yaa gëm Bamba yaa taaru yaa tebe ci gëm yónneen ba mami Serigne Abdul Xufuur maami sëriñ Amidou sama sëriñ jaaraama maam Seex Anta yaa gëm Bamba yaa taaru yaa tërëjëf yeneen ba sellawul ngaw kañ ci wàllu yàlla fekk nga parasent ci wàllu yàlla cey gaawaan yaa njëkk aj màkk ci yoonu Bamba yaay sant yëpp ci yoonu Bamba Bamba tekkal na la médaille baatin amul ku koy tekki ku dul mbërëm sëriñ Tuubaa mëni fu ko daan ma ngi tekki bam ca pays diwaan war a sant yàlla ak yeneen ba ngir foo taxaw na ngoo gënee di bamba sabran jamilan yow da yaa wakilu yow ba masin ba njoow na soobu leen di jagaar ba Moussa tabax ju maa ji daw na marwat ak sabab maamam sërif la ku sopp ak falu laay sërifun bun sërifun sërifun mun sërifun ku sopp sëñ falu tuuma jublu la du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku koy laaj ku laaj bu may la nga géej la laajib falu xadiwu la lor na xewali baawaan dul jeex abadan ku sa balaam fal lu bàyyi benn xéewal war la lodd du la day laa mën a daa alaaji fal fi abadin xayri laa mën a daa tani xam nanu la loo wax ba nguur na yaa ci jubóog wàllu diwaan yi seen mbooloo ma xam nanu wilaayati ku alaaji fal mbakke yaa yor fan man bu wér sëriñ yaa ci Ibra Faal Amadou Bal Seer Njaay biral jibi nga jàngaay bay naaru dëgën faal ku sopp maam Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal laayu daan ëllëg yawmal xiyaamati bilaa malaami ay faal yi dem leen ni ñu njukkal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal sa jeey Fatim Penda lu sukaabe a jëy dammeel di cib doogu dammeel sa xewar dammeel samba yaaya fal Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra bismillahi rahmaani rahim ma fas ko yéene musu seytaane rajim Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall yaa wane siraatal mustaqim ilal jinaani laa yàlla mooy karim ku sopp Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall yaa wadi siraatul mustaqiim ilal jinaan lillaahi yàlla may kariim Cheikh Ibra Fall yow yaa taañ yaa tarbiya ñooy bay du gerte muy addiya Cheikh Ibra Fall yaa ko sunu xol def ci liimaan yàlla la baaxee def la ngay xutbu samaan ku sopp Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall yàqatul xol def ca liimaan yàlla la baaxee def la ngay xutbu samaan Cheikh Ibra Fall yow ku la gëmul ba faatu yowmal qiyaam du tabbi aljannatu may rëbb ku bañ bay fal ku sopp Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall yow ku la gëmul ba yow mal xiyam du tabbi aljannatu yaay ñëg bi Cheikh Bamba ñëg murid yi waaju lañ jokku Fall yow de yaa moom ruyi yaa ma ni jaal laayi fanaane ci biir yel dul Quraan Cheikh Ibra Ibra Fall nu jébbal sunu mbir ci bis fa jël sunu yaajo te woon lu Bamba la ilaha illallah fa la ilaha bungu de jam ñi fande adde Cheikh la Fall si Mamor ñu ngi jéggul baax si Moussa ñun sama way juru bu jigéen woy juram mm-hmm. di sama maam mm-hmm. moo njëkk doon Baay Faal ci Tëngéej ñu ko daan woowee Bamba Jaajëf mm-hmm. mi ngi tarbiyoo ci waa kër sëñ Modou Diop borom dal jàmm defe naa ni njabootu sëriñ Modou Aminta Fall xam nañ ko dëgg la ñun ñi dañ daan jiite Sam Fall ba kër sëñ Modou Aminta dëgg la ànd ak sëriñ Cheikh Fall Diop yenn ndab yi jógee dal jàmm romb tey kër sëriñ Cheikh jëmb wuti ñaari Baay Faal dëgg la dem bokk ci sàmm bi di sikar ba sëriñ bi ne tël mhm. ak taar ba sëñ mu daminta Fall. ak mhm. kaamil ba ca loxo ba ndeysaan ak xasida mhm. dal di ñaanal mbooloom yépp ci bisu màggal moo tax boo demee Tëngéej sëriñ Ibrahima Diop. sëriñ Mour Diop dal jàmm bu masaana ñëw Tëngéej sama kër am lay wàcc dëgg la muy maam Amar Sala Faye maa ngi ziar waa dal jàmm gépp moo tax ñun dañoo géeju ci bàyyi ndeysaan waaye nag sama way juru góor léppam di daaru salaam mhm. léegi la ma sëriñ bi envoyé message mhm. Cheikh Abdou Mbacké ndeysaan di taawu sama sëriñ ba sëriñ mhm. Amidoun nga xam ne bi mu tabi te daara ja ba nopp ñépp dañ ne sëriñ bi da koy yóbbu mu tukki sëriñ bi dem ba ca àll bu xonk ba ca jàttam dagg fa àll bu rëy sampal ko fa daara ne ko del jàngale ci sab taaw fu ne mu yóbbu ko fa mu jàngi waaye tey hôpital nga fa daara ja ña ngi koy étage jumaa nga fa tool yaa nga wër ko sëñ Cheikh Abdou Mbacke nee na suñ sëñ Amidou Mbacke mi ngi teew lu teewlu jataay bi tubaarkala Sidi Baara Samb suma xarit mhm. organiser festival bu mag ca Louga mhm. ca quartier bu ñuy wax HLM cox na dëgg la mu boole ma ca jàngkat ya mhm. sëñ am ñu ngi lay jaar baax moom i ñoo bokk Daaru Salaam bi ma jógee ca daara ja fekk naa ko Mbambilor ba tey maa ngi ziar si Abdourahmane Sy bi mu yëkkati addi ju bëri di ma ko jox ndeysaan du ma fàtte bis ba nga defoon muy taw taw bu métti jànk di ñëw moom suma xarit la kon sëñ Moustapha sama xol sedd na lool yal na yàlla dolli taw di dellu di jaar suñu bàyyi yi di rafetlu kàddu yi di wax di jaar mm-hmm. euh, mboolem ku teew ci jataay bi barke Cheikhul Khadim jërëjëf euh, maam Cheikh Anta sëñ Massamba euh, sama doomu baay yow comme da ngaa nekk ak ñun ndax yaay ki nga xamante ni yaa fi représenté la Lamira nga xamante ni ñoo indi xéewal yu am solo yi. defal ñu ko gratuitement ci euh, plateau maam Cheikh Ibrahima Fall bi loolu di lu rëy di lu am solo loo xamante ni euh, liggéey mënu ko fi comme ni ko Baye Adama waxee xam naa bu ma dellusiwaatee ci yow rek ci sa yeneen i kàddu ci ñi nga bëgg ñi nga bëgg a tudd ak ñi nga ci bëgg a boole ñooñu yëpp ci la ci la bokk ndax loolu mooy liggéey bi te loolu moo tax nga toog fi dama bëggoon nga joxal ma sëñ am mu nuyoo mbokk yi nga xam ni. Euh, ñu ngi jàkkaarloog moom te moom tamit muy suñu rakk nekk fii ci télévision bi di fi def plateau yu am solo rawatina plateau bii nga xam ni mooy kenn du sëñ Touba di émission bu mag boo xam ni mi ngi ko ànd ñu ko àndal muy soppe ak wóllëre yi am di jàmm waaye nekk ku rafet xel euh, ku rafet xel di ko baax koo xam ni kuy sonn ci liggéeyal sëñ Touba bi rawatina euh, télévision bii di Touba TV jox ko micro bi rek mu nuyoo mbokk yi sëñ am ñu ngi lay dalal ci guddi gu màgg gu tedd gi nga xam ne mooy guddi gu maam Cheikh Ibrahima looy wax mbokk yi. jërëjëf sëñ Moustapha mhm. euh, maa ngi lay nuyu. Mhm. di la ziyaare. jërëjëf. di la ndokkeel ci bis bi. Mhm. yaak sëñ Mamor. dama tëddoon sax xawoon na ma départ. waaye damaa mel ni ku tiit ci nelaw rek. ma xam ne bu ñu moom sëñ Mamor Mbaye suba moom. dëgg la de coow lu rëy ngay am. waaye moom ma gàddaa ñibbi Daaru Salaam. ndax wax dëgg yàlla fan yëpp. ngi mhm. sonn ci émission bi. Mhm. di ma fu ngeen ci toll. Mhm. di ci jokkoo ak man. dëgg la ci ay xalaat yu rafet. dëgg la. di la di ko ziyaare bu baax. jërëjëf. di nuyu mboolem ñi fekk ci plateau. tàmbalee ko ci sama jigéen bu baax bale di soxna Ndeye faatu Mbeng maam Cheikh Fadal ñu ko baax. ak maam Cheikh Anta Samb mii ma jàkkaarlool maam Cheikh Anta Mbay muy ku baax ku yàgg mën a jàng. kii nag moom euh, dafa nekk nit ku baax. Mm-hmm. nekkul rek. masamba ku yor ab restaurant. Mm-hmm. nit ñëw yor seen xaalis di fa xéwlu. Mm-hmm. dafa nekk koo xam ni euh, murit yëpp ay loolu yombul gis naa sëñ Moustapha. moom Cheikh Abdoul Khadir. ak euh, ay kilifa yu bari dafa ñëw. dëgg la di ko fekk si ci biir daara ja mm-hmm. da koo ubbi rek jël position nag sox mooy wane ne fii daara yi sëñ Tuubaa uh-huh. kon tey bu ñëwee sëñ Massamba bokk ak yéen plateau bi mm-hmm. indi ay xéewalam dañ koy remercier di ko ñaanal bu baax mm-hmm. ndax yemul rek ci lu waaye am boo ñëwee xéwlu waaye nu fa ñëwee rek daañu la terale noonu te doo fa ñëwit ba génn fa gis fa lu naqar yàlla noo ngi koy félicité di ñaan taaliba yëpp nag jàppale ko. Mm-hmm. ndax damay wax ne sëñ Touba moom bi muy woote. Mm-hmm. Euh, liggéey la woote ak xam-xam. ak ragal kon moom bu fekkee ne yàlla dafa dogal mu bokk ci ñi contribuer ci liggéey ci yoon wi siggil nañ sëriñ bi. Mm-hmm. ndax sëriñ bi loolu la bëgg. al ilmu wal amalu jawharaani. li xayriyat daare ni yajuru baani wal na bi naa anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal sëñ Moustapha nag mook sëñ Mamor soo duggee seen émission dugg nga ci émission yi télévision yëpp ndax lu ñëpp benn lañ mhm. def gii nga ko def nag ñun mhm. ñëpp nga ko defal mhm. ak yi seetaan itam duñu yem ci seetaan waaye dañuy yem ci jàpp dañuy bokk ci jàpp ci liggéey bi it ba nga a jëm ca kanam ñu ngi ziar suñu waajur bu baax wii nga xam ne Moustapha Sylla sëñ Moustapha Sylla dëgg la mosuñoo gis ba jàppe ñu tuut tànk mhm. daf nuy gis jàppe nu ay mag wala ñu maaseel moom ca ñaari tali bu njëkk ga mhm. boo ko séenée rek nga xam ne am murit a nii mhm. waaye foo ko joxee bala ngeen a tàggatoo dana la dolli ci góorgóorlu leen ci lu baax kon suñu saa ñoo ngi lay ndokkeel bu baax ci guddi gi di ziyaare sunu waajur yi moom it tubaarkàlla ci waxtaan wi am na lu ma ci jot a déglu mhm. mu nekk am lu am solo moom it muy sunu waajur mhm. tubaarkàlla ñu di ko ñaanal moom it yàlla yeggale ab liggéeyam mhm. euh, bis bi nag si Moustapha murid yëpp a ngi koy murid yëpp a ngi koy fàttaliku maa ngi nuyu sëñ Mor Gueye tubaarkàlla xam naa palaat yaa yegg ca moom moo tax mëna bu la waaye bu ñu ko gisee danañ xam ne palaat yi noppi na eh, dëgg la sëñ bis bi uh-huh. bis ñëpp la bisu confirmation la waaye bis la boo xam ni mënutoon mhm. a ñàkk dëgg ndax ci weeru koor la am mhm. weeru koor ci la alxuraan wàcc mhm. ci la guddi gi gën junni yi weer wàcc ci la maam Cheikh Ibra gisee ak Sëñ Tuubaa kon weeru koor confirmation la kon Cheikh Ibra daa ñëwoon ngir confirmer beneen bi ñu topp mooy ñaar fukki fan ya te ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar ci la Sëñ Tuubaa taxawal yoon ci la woote rabbi asxaabaka bil himmati kon ñaar fukki fan yi la ñëw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mhm. ñu taxawal yoon wi kon day mel ni ak ñëwam moo nekkoon tàbbik yoon wi dëgg la tàbbik bi Ibrahima ci loxol sëñ Touba daa mel ni tàbbik Omar ci loxol yonent bi mhm. muhalliman an islaamal fataa humarin busra li ahli sama wal kullu yaqtaaru mhm. bi Omar duggee ci lislaam waa asamaan dañ doon sëgëre di feetu di wane ni ponkal dugg na ci lislaam moo xam ne léegi lislaam ci tasaaroo waaye mooy ci biir Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu nekk koo xam ne dimension bi ñu koy waxtaanee wax naa ko bi ci làmp faal du dimension wu xisa mhm. du dimension wu jaay na fii ba mu yëg xaar ga guy ga déedéet kooku intellectuel la mhm. la woon kër gu mës a jënd titre foncier la ko def ca jamono yooyu nag kuy def suuf titre titre foncier booba jege woo lii ñu ko lii ñu ko jàppe mhm. beneen bi ñu topp mooy sunu Cheikh Ibra daa ñëw ci kër sañ tubaa sant kan wala mu sant Diop. dañ naan moom de daa bàyyiwul dara seen kër moo tax mu ñëw waaye ñëpp dañoo war a bàyyi ne royaume la bàyyi ginnaaw. la de. ndonol buur la bàyyi ginnaaw. ñëw yaakaar sëñ Touba. lool nag stratégie stratégie wu sëriñ Touba la. wax ne buur yeeg gaa yu baax yee lay raamal. gaa yi ni duñ la jaaxal. barki dem moom maa ngi gis gaa yi sax ci internet bi. luñ laax rek laax ci Baye Fall yi. luñ laax rek laax leen ci. waaye parce que day wane seenu télé ñoom. dëgg la day wane seenu ñàkk xam yàlla. koo xam ne ba muy seeti sëñ Touba yàllaa ko ne seetil sëñ Touba ku yàlla di diisool kenn du la jàngal sariya. dëgg la te moom moo ma ne yàlla moo ko ni raase ko jox ko say pexe kon bu ko yàlla ni raase ko jox ko say pexe ko kenn du ko jàngal diine fii nag gars yi ñaari araab la ñuy jàng jàng ni salaam jàpp ne dégg nañ arab ak sariya ba ko wax ñu bëgg laa jubbanti kon guddi la boo xam ne nii guddi gu mag la guddi gu ñëpp war a roy la. te itam nag jàpp naa ne lu jiitu Cheikh bi sax maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ak sëñ Massamba Diop Sam noonu lañ taxaw yoon murit ndax ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci wetu sëñ Touba bokk moom sëñ Morante Sali di fa jàng xam-xam waaye benn bis dañoo xëy suba rek daal di wax ne nan la nit di mën yeggee ci yàlla te du doon am njàngum kese sëñ Ibrahima Sarr Njaañ daal di wax ma Massamba Diop saam ne ko buñ ko laajee Ahmadou mii de danañu tontu. ci la sëriñ tubaa di génn ci kër gi di jëm ci làkk bi ñu ayu ko mu ñëw bi sëñ Touba ñëwee bi sëñ Touba ñëwee ci lañ ko laaj na ko njàngum kese taxut nit a yegg luy tax nit yegg ci yàlla boobu sëñ Ibrahima Sarr Njaañ daana muuroo mbàjj ci kaw bi mu daal di koy lalal sëñ bi ne ko toogal bi sëñ bi toogee rek sëñ Touba da ko ne benn ci li nga def rek wane na ci li yeggale yàlla mooy gis jege yàlla nga maal ko ñoom it ñu daal di am dégg-déggu ne kii bu ko toppee. danañ yegg ci àlla ñu laxasaayu topp ko ba tey yoon wi egg si fi mu egg si démb rek maa ngi koy nettali ci laay daaneele muy euh, ki nga xam ne nii muy ki nga xam ne mooy sëriñ Ba Jaxate ki nga xam ne mooy sëñ Bay Jaxate sëñ Bay Jaxate sëñ Moustapha dafa bayal sëñ Touba toolub gerte ñii ne nañ toolub gerte ñii ne toogu toolub dugub sëñ bay jaxate ba tool bi ñor booba am na naar jóge jógee Mauritanie ñëw njaareem di wut luñ dimbali ko bi ñu yegsee ci sëriñ bi sëñ bi ne leen toog leen te ma sëñ bay jaxate ñëw ci sëriñ bi ne ko tool ba ma la doon bay ñor na sëñ bi laaj ko buñ ko jaayee ci nan ñaata lay toll sëñ bay jaxate ne ko buñ ko jaayee ci nangam lay toll sëñ bi daal di wax sëñ bay jaxate ne ko nañ ko jaay boo jamono xari na mu ne tekk ba yàgg sëñ bi ne tekk ba yàgg sëñ Tuubaa ne ko doxal jaay ko Ibra Fall sëñ bay jaxate nee na bi ma ñëwee maa ngi ko fekk muy bàgg nee na mënuñ ko mu daal ne ko Babacar toogal ci kaw sëñ bay jaxate ko du ma toog ci kaw dama la koy wormaale Cheikh bi ne ko ku ma mujj ci sëñ Tuubaa yaay sama kilifa dama lay wormaale jóge gi mujj gi nga mujj ci moom sëñ bay jaxate ne ko man it toog ci kaw nee na ñoom ñaar ñëpp ñaan toog ci suuf nee na mën a tekk ba yàgg nee na ñuy jàmba sant ba yàgg jékki-jékki mu ne ko Babacar ndigal nga a xeeñ ndigal ndigal nga may xeeñ gaawem bu dee na mu ne ko dama ko doon bàyyalub tool ba tool bi ñor ma ñëw di ko ma ñëw di ko ko yëgal mu a naa ko jaay ba yàgg mu a naa ñëw jaay si ko nee na mu daal di génne téeméer ci jibaam ni ko àddiyee ndigal li nga ma indil daal dina ko ñaata tool bi war a jar nee na sëñ bay jaxati nee na ma wax ko ko mu génne loolu jox ma ko lim boobu nee na daal ba yàgg daal ko bam lay wax demal Ibra Faal jënd tool bi nan la doon def loxo yi sëñ ba jaxate nee na ma ne ko booba mi ngi muuñ ma nga yëkkati loxo yi nee na mu yëkkatiwaat téeméer tegaat ci dal ne ko xanaa xaj na fi nee mu ne ko waaw kafe xaj na fi mu ne ko ah bu la neexee rek faal nee ñu teg kafe gi nde sëñ bay jaxate nee na ma toog ñuy tàngal kafe gi ak bi mu koy xel yëpp benn baat lay baamtu nee na su ma jàmm sante bi ak jékki-jékki mu ne ko nga ne bi la koy wax daa jékki-jékki rek ne la demal na Ibra Faal mu jënd tool bi nga xam ne moom baat bi ko ci ñor rek mooy tànn gi ko sëñ tubaa tànn rek na ko doxal jaay ko yiw rafet kooku nag kenn mënul jariñu te laa te jaaroo ci moom kenn mun a yegg ci sëñ Tuubaa te jaaroo ci Cheikh Ibra ndax Cheikh Ibra dafa bàyyi léppam topp sëriñ Tuubaa ku bañ nag may Cheikh Ibra ci sëñ tubaa mooy mi ngi mel ni nga bañ may sëñ Tuubaa ci yonent bi te sëñ tubaa yaa muntaxaa yaa raisal akramina mahan nee na li ko ci yàlla fay xamul nu mu toll. mooy tagg wi gën a gàtt rek mooy ku fi mës wàcc tey ku tedd rek yow yaay président yaay njiitam kon guddi la goo xam ne kuy murit war na koo célébrer ndax liñ koy fàttaliku buñ dee fàttaliku 11 mai euh, koo xam ne dëkkul ci dëkk te musique la daan def ñu di ko fàttaliku mu dëkk ci yeneen dëkk ya fu ñu nekk rajo boo jàpp ñu di ko fàttaliku fàttaliku ñaar fukki fani koor gi moo ko gën Sénégal nag dëkk boo xam ne dëkk bu naqaree waxtaane la. parce que bari nay boromi xam-xam bari nay analyse bari na ñoo xam tam amuñu pas-pas àqida amuñu ko boo làmbee seen xol yi doo ca fekk dara waaye sëñ Tuubaa mooy wane ni sama staff rek buñ ko waxtaanee ngeen xam ne duma seen morom ndax ko li Cheikh Ibra ci ginnaaw kenn ndax ku mën a àtteeb xarnu bu toppee ci ginnaaw sëñ tubaa am na lu xew koo xam ne da nga nuyu sëñ Tuubaa te naan ko ndéeyul démb maa ngi koy dégg kooku sëñ Tuubaa kon sun borom moo ko tànnal ñi muy àndal kon noo ngi leen ciy ndokkeel bu baax beneen bi ci topp mooy jëwriñ Alaaji Mbàkke yu fay kone xam na diggam ak Ibrahima Fall lu mu am Cheikh Ibra ko defal te nun sëñ Fallu rek doy na sëkk ci jàngal gi mu jàngal Cheikh Ibra sëñ Fallu rek doy na ci sëkk noo ngi lay ndokkeel baax di ndokkeel sëñ Maam Mor temps yi daa jël daa jël daa jël sañse te daf maa nag fan yi ba nga xam ne télé ba may dem sax danaan ma bul dem toogal bul dem ndax jël gim jër sama fit ndax moom sëñ moor Faati lañ ko tuddee moom sëñ Alaaji Tàkko moom sëñ Gaawaan man ñu tudd ma sëñ Amidun moom sëñ Muudu Maamun moom sëñ Gaawaan télé bi moom waa Daaru Salaam dañ cee saf sap kon nag ma muy waaw ah, ma koy daaneel non Daaru Xudo sax tuwaar kàlla kii yi moom sëñ Fallou ak Daaru Salaam kon nag jërëjëf sëñ Moussa maa ngi nuyu sëñ sëñ Ibrahima fay mii. waaw ak sëñ danoo danoo daje màkk mën a yow. dëgg la dëgg la dëgg la. waaye mun naa sax bu ñu fa nekkee mënuñoo def suñu benn xeeti jaamu yàlla ndax. dëgg la rek sëñ la ñuy waxtaan. dëgg la dëgg la dëgg la di ko am solo mhm. di ko bëgg sëñ Tuubaa nag mhm. maa ngi koy nuyu maag sëñ Xaadim Sàmb mii nga xam ne mhm. sama xarit la ak euh, sunu sëñ Xaadim Jaañ mii nga xam ne ñëpp xam nañu taxawaayam ci yoon wi ak murid yi dëgg la noo ngi lay sant bu baax sëñ Moussa Goulet bi ñu fi fekk ñëpp ñoo ngi leen ziar sëñ Mamma ak mboolem yi ñu fi fekk ñëpp rek sëñ Xaadim Njaañ déedéet xam naa damaa bàyyi ak sëñ Ibrahima rek moom daal damel damaa tay la ci sëñ Ibrahima <laughs> tubaarkàlla euh, jërëjëf sëñ am yow moom dinañ dellusiwaat ci yow ci kanam tuuti xam naa euh, sëñ ma Massamba comme dafa mel ni gars yi pare nañ bay bëgg a dem duñ la téye dañ bàyyi rek sa dernier mot ndax bàyyi aadama mën a daal di tàbbiwaat ci waxtaan wi ak sëñ Moustapha waaye dañoo am ay gan ñu fi tàbbi léegi bi sëñ am di wax muy sëriñ Xaadim Njaañ moom la sëñ Mame Mbaye léegi nii lii mu sol nii moo ko ko jox addi Sëñ Tuubaa ni ko li li plateau bi ñuy def ci Maam Cheikh Ibrahima Fall li ngay sol man mii maa la koy jox noonu la ma ko joxee ay yoonu yoonu yoon jox ko ñu baree bare bare ba ci sëñ moor Guèye mii di jàngatu xasaayit daanaka mën naa wax ni li ngeen gis mu di ko sol lépp sëñ Xaadim moo ko koy jox ci ak mbaaxam ci am bëgg sëñ Tuubaa ci bëgg xasida ci ànd ak mboolem kuy yëkkati xasaayit ñoom sëñ Ibra Samb mboolem jàngatu xasida ak ñuy waxtaan mu teew nii nga xam ni foogu foogunu ko woon ndax bërki démb la waajuram mu jigéen génn àddina daf naa bu ma juumul juróom-ñetti fan yi démb la woon tey tey la juróom-ñetti fan yi kon kooku amoon na ngant waaye moo ànd ak sëñ Ibrahima Faye mii nga xam ni waajuram lii sëñ mbàkk yu doon tey waajuram doon na ko mooy représentant xalif général des mourides fii ci ndakaaru Baye Serigne Faye mu mu ñëw teew nii ànd ak sëñ Xaadim Sàmb lii lu rëy rëy rëy la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ñu ngi ci yéen léegi allah sëñ jànkatu xasaayit sëñ Maamoor plateau bi ñëpp ñëw nañ kon euh, Cheikh Massamba Kane sama doomu baay dama lay bàyyi rek sa dernier moo ci lii nga xam ne yéen a ko def tey ànd ak ñun indi xéewal yu bari bari yi su ko defee ñu door a mën a continuer ci waxtaan bi euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi fi gan ñi fi ñëwaat di ziare sëñ am ndax moom it euh, waa Daaru Salaam la ñu ñëwaat ñu ñëwaat rek ci l'amiral Euh, dafa am loo xamante ni ci Sénégal euh, daf fi xawoon tumuranke bi ñu defee investissement bi dafa am ñoo xam ne mënuñu leen a bañ a tudd ndax euh, li jafe woon ci ñoom dañ leen ko yombalal muy entreprise yi nekk Sénégal chef d'entreprise yi nga xamante ni ñooy PDG yi ak g yi événement yi ñu am dañoo lottoon ci di teral gan ñi chef d'entreprise yi ñu ci xam yëpp fa la ñu sosi euh, comme ni nga waxee ci sañse yi ku mel ni Modou Gueye héritage nga xamante ni dafa inoon euh, dafa amélioré ñaw bi ñëpp xam ko ci Sénégal personnel am foofu la ñuy jëlee lekk moom ci wàllu boppam aussi euh, lu mu xewle foofu lay commandé ku mel ni DG lekk ñu ngi koy gërëm di ko sant comme ni ngeen ko waxee li ñu soxla foofa lay mën a am personnel bi def ko ci anam bu sell ñu distribuer ko ci professionnalisme lu mel ni directeur de la Sonatel aussi ñi ngi koy beral nuyoo de passage ak euh, l'ensemble de la Sonatel ndax euh, bu ñu soxla événement yi euh, li l'amiral di composé ci ay ñam di ko distribuer loolu foofu rek la am ñuy gërëmit ku ci mel ni El Hadji Dia bu Bambey di responsable politique ci département de Bambey moo ko képp ku mu xam ci gouvernement bi euh, li ñuy soxla comme day takku foofa lay am ci l'amiral ñu accompagner leen euh, euh, chef d'entreprise yi ñu xam yépp ñu ngi leen di tàllal loxo tey koor gi depuis 2013 ba tey am na beneen taxawaay buñ ci def muy dañuy def buffet self service nga xam ne lépp loo xamante ni dañ koy soxla dañ koy dañ koy def euh, dañuy def dressage bi à partir de 18 heures euh, bépp béréb bu nekk ci réew mi di defar ñam vingt la mille la ñuy la ñuy la ñuy calculer euh, montant bi waaye li ñuy wax ci Serigne Touba rek ak Cheikh Rafal comme ni ko ba Adama Sarr waxe ci ndab dabe kilifa gi def ni nañu dagg vingt 23000 képp ku ñëw 4G la ko am na. Euh, day dañ koy def mise en place ak café au lait café euh, noir ak euh, lépp lu ñu soxla nga xéewlu ba heure bu la neexee nga dem boulangerie bi ak pâtisserie bi mi ngi ci suuf nga joxe mille francs li ci des ñu dagg ko def ko addiya loolu nag li ñu doon li mu doon àll Sëriñ Tuubaa moo tax amul nag xaaj seen ndax bérébu lekkukaay la nit ñi li ñu soxla mooy hygiène bi discipline bi ak professionnalisme bi ak goût bi ndax euh, lenn lu ñuy tere du fa dugg xalal lañ fa bind muy lu dagan rek la ñu fay jëfandikoo kon ñu ngi leen di nuyu sëñ euh, euh, Mamor Mbaye sëñ am ngi lay delloo nuyoo yow tamit ak Baye Adama Sarr ak sëñ Silla waaw ñu ngi leen di sama doom baay yow wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant ci accompagner bi nga ñu accompagner ñu ngi jox ñëpp dox daje l'amiral en face Léopold Sédar Senghor téléphone bi du 77 534 87 43 lu ci mel ni tamit euh, Sobimex nga xamante ni Adja Fat Bin Seen moo ko moom mu def en face SAMU ci deux voies liberté 6 yi ñoom it personnel ba ñu yor li ñu soxla fa lañ koy jëlee ci li ñuy lekk euh, ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak ñi nu accompagner ñëpp. jasaakamullahu ana xayran yàlla na yàlla defal ñu ko ak jàmm lépp na dajee rek ngërëmul Serigne Touba ak Cheikh Rafal iyaakum jërëjëf. jërëjëf euh, Cheikh Massamba Kane euh, dëkk fële ca kër Samba Kane waaye di taalibeeb Alaaji Bara Mbàkke mu Cheikh Mouhamadul Fadal. nekk suñuy wëlëre yu baax xam nga lii ñu def lu rëy la wax naa ko ci bi ñu tàmbali ñuy def plateau maam Cheikh Ibrahima Fall ñu defar seeni xéewal ba mel ni mu war a mel ñëw ko indi ko gratuitement def ko addi Sëñ Touba jox ñëpp ñu lekk ñu naan lu gën a rëy loolu amul. wax dëgg yàlla kon télévision Touba TV mi ngi leen di accompagner. yaakaar naa ñëpp it dégg nañ li nga xam ne moom ngeen wax ci képp ku soxla loo xamante ni looy jëfandikoo la ci xeeti fànn yi ma gis ni tey moom xam naa bu dee chaque jour day am insha allah am na ñoo xam ne moom faaw di ndax sëñ Mamor moom xamatul lu muy def ci pat bi Baye Adama ñi ngi ñu ngi lay ñu ngi lay ñi ngi lay euh, nuyuwaat te di la siyaaraat te di gën a kontaan ci fi nga yemoon ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci njébbal gi ak lim jaayanteeg maam Cheikh Ibra mu mel ni boo daanelee sa kàddu ba Baye Moustapha euh, teg liñ ci teg dañuy daal di jox sëñ Mor Gueye ndax moom ku ne xam na ni liñ ko waajal mooy moo awukatam mu njàng njàng mu njàng mu yaatu mu moo xamante ni tey guddi gi day jàng xasida sikkar ndax guddi gi moo laaj loolu sëñ Moustapha waaye nag tamit waxtaane ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ba nit ñi xam pas-pasam xam dogoom xam pastéefam xam léppam loo xamante ni su ko defutoon ñun duñ ko mën a jariñ suñu digganteeg Sëñ tubaa loolu tamit nit ñi dañ koy gën a soxlawoo di ko xam kon yaakaar naa ni. Euh, waaw ñu aadama sax ko dañ koy ñaan. waaw fi mu ne nii nag rek. Mhm. bi. waaw. ñan ñoo demoon. Mhm. ak lu ñu fa def. Mhm. bàyyi aadama. ku la bëgg la am. Mm-hmm. sëñ Abdou Khadim moom ñëpp lay topp. sàmm moom. Mm-hmm. ak. Ah. waaw. Mm-hmm. doo taalibu la walaay si dako. dëgg <laughs> ñëpp la xam. mag laa sama baay sëñ sama baay sëñ nel Touba maa di taw nag. 41 laa gane àdduna. Alla Cheikh Diakhoum ma tudd. Mhm. Mhm. Mhm. ko tuddee mooy sama magi Serigne Cheikh Abdou Khadre Mbacké. moom moom laa yaroo. sëñ Mamor Touba Touba mooy saa Serigne. waaye Baye Fallé gi moom Serap Fall la. Serif Assane sëñ Ablaye Fall la. la. ah sëñ am kon daa mel ni Baye Adama xam na la. lool laa ko xam. waaw. <laughs> ñu di murid saadix mel ni sëñ Tuubaa bëgg na. ndax sarafaal bi mu jébbalu sëñ Tuubaa da ko ni sama àddina ak sa alaaxira jox naa la ko. dëgg la. li jàngkat yi mënta dégg. yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay. yaa ma gënal yàlla yaa ma gënal yonent bi. ci loolu sëñ wax na ko. dëgg la borom gaawoon suñu tuwaat da ko woo mu ñëw mu ko maa yàlla ku la gënal yaa ma <laughs> mu ko yaa ma leen gënal ci borom gaawoon borom gaawoon sa ndey ak sa baay mu ne ko yaa gënal ndeysaan cheikh lu tax mu ne yàgg na ma ak ñoom ñoom yàgg nañ fi waaye ni nga ma def kenn mosu def jàmbu jàmbu la topp mbaarak fukki at juróom-ñeent mhm. juróom-ñeent fukki taalibe juróom-ñeent ak man muy téeméer dëkk bu Daaru Salaam taxaw seeraam aram sawara addina galaagara mhm. jenn mag mosu koo jox jenn rak dëgg la la dëgg la jidduwaale wàll yàlla ñu garaati maxtaar kunti yooyu ñu ma tudde yëkk ko sans waajur jigéen joxe yaari nag ni barke bi ci man ak wilaaya gi ca maxtaar kunti jox ma ko Maamante Njaay loolu def ak sëñ Mor Sali mhm. bis bi na si maxtaar kunti yooyu muy borom gaawaan ba bis bu delsee la Maxtaar Kunti faatu ñu rëkki garaat ya dal jox ñu gaawaan borom gaawaan a ngoog ger bi waaw Cheikh Fall benn laa tiite benn yoon laa jaaxle ñu ne ko lan mun kere ba ma ànd ak borom gaawaan ak borom Tuubaa ñu jëm si ndaam suñ gaawaan xalam ci laaj bi ma fëkk ko yëkkati ko mu ne mu ne ko loo ci jublu mooy bu dee dëgg mu dee jaan mu màtt ma bu dee lay mu tooy ma waaye suñ taa dara wuru koo taq Sidi Anta Ndiaye. Sidi Anta Ndiaye. Cheikh Ibra ni ko lay bi li mu tooy ak suuf seeg fépp suuf yi naa la ko dërëm ngërëm. daan ni barke beeg daan ni wilaay bi batin beeg wéramu yàlla yi borom bi tuwaa ko ci def waaye màcc ci mbooloo mi wërsëg bi. Cheikh Ibra Fall ko daan ni tuwaa nag jébal naa la saa ba mu des yat moom Cheikh Ibra Fall sëñ tuwaa yan yat mu ne jom ji. fit wi ngor gi dama ko téye mu ko lu tax mu ko jom ji laa lay liggéey ngor gi laa koy sàmm la la laa koy muñee fit wi laa koy sàmme looloo waral mu neefaree mbaam teg ci buntu kër gi ak peer daal ak mbaxana ak moom Cheikh la noonu waaw maa ngi werante lu mu ci lu mu def sëñ mu dikk ni maa ko xam ñu ne ko loo ko xamee muy ne li ba ñu ko neefere mbaa mu ne ko sole daal dugg fii nuyu sëñ Tuubaa mu dóor bëgg a neefere <laughs> kul sol mbaxana def noonu ay car yet bi dal ba nga neefere ku tooga moom sole ferankalaayu mbaa nga sàllali tànk mu dóor ba nga neefere daal di fudd nu serafal mii xam nga baat ba muy wona ah, adab la lay won waaye wonunu ndax sëñ Tuubaa yoonu du yoonu du adab la wone moo tax Cheikh Rafaal ne kër gu ndof di maye dara ku nite ñàkk. ay këf gu yar di maye ku ko réew ñàkk nga. këf gu teey di maye. kër gu teey di maye dara. ku ëppal ñàkk. daani boo jàngee ba ne ar daje ku jàngul xamal ne bii bisam taxam ñu jàngal la Cheikh Rafaal wax. buñ la yaree ba nga ne nërë ni wa téen daje ko jàgg new doj xamal ne bii bisu tax ñu wulli la buñ lay re ba nga teey nim ndox daje ku ndax ni ba di jeex xamal ni bii taxal ñu teyal la dëgg la soo diisee ba ne gan soo woyofee ba ne tooy kon daje ku diis gan xamal ni bii taxal ñu woyofal la dëgg la dëgg la daan naa doom ku ñu jiiñ yàlla nga dem fekk ko mu gën a dix kilos amu jàpp ñu ne ko lu tax mu ne yàlla gën a diis lépp lu diis moo ko diital foo dem fekk ko bu diisal du ma ndox. <laughs> daal ni sëñ Bàmba feeg maa ngi kaw suuf sama lépp yow laa ko jox feeg maa ngi biir suuf sama lépp yow laa ko jox aywaay daal ma sàmma njaay yëpp la ngoon a njaay desaan mag ñàngoog te sama juxaani moon njaay jum Cheikh Garo Tall Mudu Mbaye saa yëpp la cuun sàmmanaat Cheikh Tall Galon sëñ Modou Gueye Ñaay sëñ Modou Gueye Ñaay Baye Cheikh Guédiaye Baye Cheikh sëñ Mor Dieng Poleg sëñ Bédiaye sëñ sëñ Mbaye Diouf Ndié sëñ Aliou Diouf Boox bàyyi sëñ Silla Baye Fall waaw sëñ Ablaye sëñ Ablaye Silla baayam ak maami am sëñ si la baay Fall ñoo jëkk bàyyi ma jëkkam turandoo ci sëñ Ablaye Fall tawat nañu yóbbu ko hôpital bëgg a dëgg tànk moo ne ku dagg ma dagg maa la loolu ku dagg ma dagg ku dagg tànk ma dagg ndax ñi mu leen dagg sa tànk cër bii manqué te ci nga bi te yëgu ndax daa ko jëbbal naa la sa bopp ëllëg àlaxira kon jëmm ji lu ci waaye di manqué na ko de tàggu ji ba gaa demee di ko tàgg bi bi mu def tànk bi mel na melan sëñ mu mi tànk ko waaw euh, sëñ Jóob oh, mooy wur bu mag bi Mambay Loo Gusaas Babacar Loo Cees waaw waaw sëñ Moussa Diouf Sindiane Ablaye Codé Touba Toul sëñ Mour Gueye Maro sëñ Rafal noonu ku man tudd doo dem Sawara Modou Wade jës bu sëñ sëñ Modou Wade sëñ Mor Ñang nijaay sëñ Mor Dia ak sëñ Mor Dia mi sëñ Mor Dia moom njar junniy matt yi junniy bërigu Cheikh Rafal santan sëñ mut Wade sëñ sëñ mu sëñ sëñ Moudou Wade mu saas ko ci juróomi téeméer bërigu sëñ Mor Dia wax ñëpp ñu dem taxan ñu taxan ba ñëpp yenu say yi mu taxaw fi benn kër garab garab gi ni ko looy def lii déggoo ma de mm-hmm. waaw nit ñi nag ku mënta wax ak nit képp daal ni garab mu ni soo xam moom la ma te wala wala am xar te nañoo na garab yoo xam ñu dégg ko xam ko garab gi ne ko momar mu ne faal mu ne looy def nii mu ne ci lan mu ne ko sama roog yëpp taxan jëm ci Seera Faal kaw Seera Faal yooyu Madina nga toog bu ñëpp suppi suppi woo bu ñuy fay gaa yi nga toog doo jóg sëñ moor jot taxan say ba boo taxawee fee kee taxaw fee doo ko gis njar bàyyi suñ Muudu xanak Musaa ak sëñ Ablaye Jandaanaan ak Ablaye Cap Cap ak Musaa Téere ak sëñ mu jami sëy mi xalifa taalibe bu jox sëñ Ablaye sëy kër Njaay Loo nga xam ni dañu àdduna li ma xam lépp a ci des peppi suuf yi ñaata la wantu yàlla lay liggéey géej gi ñaata tong ak ban guddee san ñaata la te bala maa faatu xam ko daal di kafeer li ko tàmbalee kër njaayloo ba géeju wookaam ba géeju ngor doju ngor su ma neexee ku fi faatu loo mën a doon mu yóbbu la àjjana su ma neexee ku fi faatu loo mën a nekk mooy yóbbu la sawara yàlla ma fayee jaam yi sëñ ñëpp lay sëy wax loolu mu jur bàyyi sëy ak sëy ak sëñ Moussa sëy ak Fallou sëy ak Matar sëy sëñ Mor jaa ko defar di àggu ci benn yoon àgg ci Cheikh Rafal Baye Mor benn yoon la àggee ci sara falte xaati man de ca ca am sëñ mooja du ko yónni ci sëñ tubaa mu dem sukk sëñ tubaa tàngal warga di xim ñoom ñaar ñoom ñett sëñ tubaa sara faal sëñ Ibrahima sëy sëñ tubaa suukar ba baraade bi génn ca kaw maanaam moom la ma ngi wax jur funk xam wax loolu day tuuka si day laal ca taatoo génn ci biti ba kubéer gu du mën a ubbi ma ñu tudde ko jur funk mu yëkkati baraade bi ñaari yoon fabkat bi jàpp Cheikh Rafal sëñ Abdoulaye Seye ci xel mi mu ne su ma Cheikh Rafal jottalee kaas bi suñ Tuubaa joxe xemal ko boppam su ma ko naanee barsàq bu mu ëpp ru yu mu romb bu ma gën ëpp doole ci yàlla Cheikh Rafal ni pëgg kaas bi ci bopp bi tegaat ci ci ci taabal ji ba baraade bi jeex sëñ Tuubaa ni wuriñ puus ko baraade bi Cheikh Rafal meeb baraade bi ak table jeeg kaas yi ëmb tàllal kaala gi ton ni dóom beeg sawara weeg yi ak matum jalambaan bi ëmb ci ni fii takk ñaa hee Ablaye mu ne Fall mu naa mel ni man faat na waaw faat na laa doom yàlla amul rasulaay ñaari rasulaay amu ko sëñ Bamba mii yàlla rasulaay yàlla amuñu ko ñaar sëñ Bamba amuma ñaar daal na doom sëñ Bamba mii Amadu sëñ Bamba mii doom kenn amalu ko intérêt mu bàyyi la ci lu neexul yàlla te maa signé ak moom bu ñëwul àdduna du ma julli du ma woor ku ma dégg dem sawar ku ma topp dem àjjana daal ne ah doom boobu mbaaru ñu asama la tey yu suuf binduñu Aadama amul basar mu mool këram kii gala mu ma amul Aadama amul basar bu ñu demee àdduna ci kii la lay soqe ko fasaa baaram ba doon dal muy jumbux ci yéen la mu mool kërë ba kërë mooy biir bi ngeen di xiife daa waaye ma si ba mi ci bokkut du ñu xiif du ñu mar ñu ne ko loolu kañ la sëñ bu bi ñu ne ko aja bëri manu xablal xalqi sab'iina alfan sant bi daqi wax de wax de sharafale sëñ Tuubaa ñu bind aadama abul basar ak ruu yu juur leen fi benn ndax du sëñ Bamba sëñ Tuubaa sëñ Mor Ndiaye ah, Mor Awa Ndiaye Mbare Ale Ndiaye sëñ Mor Baas Makka Baas mooy maam yi ñuy sant Baas ne ko fu la fekk mu ne yàlla damaa wattuloo juróom benn géej wala juróom-ñaar ci secret la ilaha illallah moo tax lii Moussa wax na dëgg de bi may tudd yàlla ñoom ñoo may aw ñu may engagé ko mais ñoo ci demoon ci guerre bi waaw ñoom maa ngi ci ñoom ci dañuy temps bi gis nga Baye Adama waaw Baye Adama duggal ma ci guerre bi ndax da ma ci mës sa def noo xam ne damaa bëgg mu yi dal foofu waaw koy ma daane foofu kon waaw daaneel foofu rek dugg guerre bi eh, sëñ bi ñëw tiim ko Morow Ndiaye sëñ Morawa Ndiaye sëñ Mor Baas ñu ko fa la fekk mu ko ñu may wattalu géeju ak faaliya sëriñ Rasulullah bi siri laa ilaaha illallah salik fallu laay nihma laaw rabbi wa laa ilaaha lam yoonu indi ma baax ana laaw falan wa laa ilaaha illallah rafa xani ila laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah sayyidina sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi allah akbar asbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbu arsi atsebi ne ñu ne ko lool nu mu demee mun sëli wa sëli man ala man xaja baabil bala yowma alastu awala xabla sawee takkalim inna laa wal malaikatu yusalluuna ala nabiyyi ya ayyuha allazina amanu ba mu yegg elax li mag ñi wax ak allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il fatih lima xuleex wal xaatimi lima tabaqa ilax ba mu yegg lu ci nekk ñun fukki yoon yaag benn mooy benn way wow moo tax sëñ sooy bu ni ku wax salaatu fati ci dund benn yoon da demaa dem àjjana ko si sàkka faase nga sa war a la jëm mag ñi ma lim def nañu quartier Baye Moussa Sall Baye Modou Mbaye Sarr bàyyi ba cuun sàmmanaar sëñ yaaram mbay sëñ njaay rox mag juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom-ñaar si rafaal joxe na ko ak mut si taawub alaaji may ñu ndar suñ tuwaa woo leen jullee leen ni bu fa desee ku faatu suba ak nga yendu ku faatu ngoon àjjana ngay fanaani bu ngeen del seen lu ngeen dund seen bénéfice lu leen neex def leen ci bi ñëwee ndar si kar si jolli bàyyi soxna Fall ji xadd suñ Fallu Fall ji te suñu Ibrahima Fall topp ci ak mag ñi këdd as ci ndar ndax daan def comme bonk nga faatu te dañuy yow nag bu fi tëddee wàll doo fi yendoo moom ku ñu ni wëlii la mbaa borom coow nga bu ñëwee day bank ko rek ci digg naa bi xëcc mbàjj mi sàngoor doom ji jox ko laaxum daqaar akum xay akum lay bu ci ëmm ëmmalee ñetti tip taal gën gi ci jaww ji bu ko fiimee ñetti góox saxar ko ci biir mbàjj mi bank su génne bu ne taleet wala yu faatu soxna Fall ni dekkal yaay soxna Faat Fall Wàdd xam na ñu ma dégg ñu naan soxna Faat Fall Wàdd la dekkal déedéet yaayam la dekkal mm-hmm. mu banku seen falaxu bu timpaas yëg si ci moom daan mii loxo ya lépp fokk mu ne eh, doom wàllu yoo la tax a jóg mun naa ah, doon du ma wàllu man man maay aboori jàll bàyyi góor njiim ji yàlla <laughs> maa moo tax mu noon sëñ Tuubaa arabam yu neex ya daxaaw tukkum yaayu al baraaya li lay wër suul fi baraaya suñ Bàmba borom nga doo moroom daa di jàll sikar si jolli ki war a jiite armée bi ci nasaraan yi daal leen arrêté sikarkat yi bañ booba samfal xew a gut samfal ci sëñ Moussa Fall la tàmbalee jeex ci Cheikh Fall Baye Góor daayira Secours laa jeexee ci sëñ Mouride sëñ Mouride mooy naa jug boo jàngee tarjumaan yi ba ci tarjumaan ju mujj ak ba ci romb romb sëñ Moodu mu mel nii boo rombee doom ji mel noonu boo romb taalib ba mel nii boo rombee ki ko sopp yaakaar ko di ko dafa dem di ko siyaara ka toog fi moom mel noonu xool ko ci Moussa si la mi yiw solo noppi gore doy li mu gëm Seex Rafaal te kenn du jaare yab yoonu Baay Faal wala murit jaare ko ci moom te bu dee diine lislaam la jumaa ji dem mën na leen jiite tey Baay Faal nag du fuwaase ay tërsanam du xar takk du tilim bopp du xeeñ netatu dënga te dënga ko ah juróom fan nga am ko sanguwoo fab ñaari liibari këru def sa ak genn waa liibari netatu sanguwoo socc woo suuru woo sukkaru dina tudd yàlla siyaari woo sëñ bi loo lekk lekk yaa jab gu ci la meeyam sëgg ci ñu def nii muy nare bakkara mooy lu muy wut loolu du murit du bàyyi faal du du lislaam lislaam borom day sell la ma ngi sikkar ba yàgg tubaab bi génn araftu leen ni leen taxaw leen gaa yi lànk ñun ku dul sëñ ak suñu Ibrahima Fall Ndar ak sëñ Bassirou Fall Awa Jaxate mënoo moo noppiloo tubaab bi ñëw gëdd la gaa yi révolte si kër vingt-quatre heures yu kenn a ah attendikuwut hmm. Moodu Xuri Seen moom nga dégg Moussa Kanaan ndax mu daal kër Ahmadu Xurey Seen nga la mu càllaloo ca ñooñu Xurey Seen amadu Khoury Sène la mhm. Amadou Khoury Sène mhm. mook suñu maire jaw ñoom mhm. ak man Ablaye Dieye ñoo dikk ci sëñ sëñ Fall Fall ni ko gars yi rawalti nañ de daam ca tubaab ma ni ko soo waxul seen kilifa gee mënoo leen a noppi la kuy sa kilifa mu ne sadar ba ak ñam fa tegan suñ kilifaa nga nee suñ fàllu faal suñ ablaay suñ bésu awa jaxate suñ amet si muñ muudu si taw alaaj ma demal ca ñee soo bëggee gaa yi noppi mhm. bi suñ fàllu ne jal ni mii loxoli gaa yi yëpp xool ci mu ñu ñëpp waaw tubaab bi ne ah ñii dañoo sangoor ndox gi mais naanuñu ko amidoon dañoo bàyyi faal nag muy si takab dof bu ñëwee mu ëpp ñëpp intellectuel gën a silwise gars yi ba noppi silwise di solo tey xeeñ lu neex di sangu gaa jëm ci garab bi nag biñ demee ba guerre bi déclaré waaye mu gis bu tubaab bi daaw ko defisloo daaw ko fitaloo fitalloo parce que buy jàng jës bu sëñ Mor buy jàng jës bu bu gaa yi tekki kënu yi kënu yi day jëri ko ci kaw bu ñu xëyee tubaab nañ ko santeen kon santé yàgg yàgg ngeen koo def santé bu santé bu ñëwee ba ci imaana fii silmaani yi yux ni am naa ma daafi li ku lépp leen xaas yi yelloo bu xëyul oromi kënu yi jëriw jëm kaw bu matee benn waxtu ñu làkk leen wala ñu wax leen ci wolof ni leen tëddalin gaa yi tëddee ñu joor bokk seeni fital bu ñu amee genn wàll waxtu ñu ni bëri na jóg ñu ni tubaab yi ni léegi nit ñi ñuul ñi dañuy dee di dekki tëdd baa tax ndax fital yi bu jëli koo ba pënd ba wóor ñëpp tëdd na naa dee nañ bu ñu demee ba jige leen gaa yi ni ñokkit jóg suñu fàttali la ñu ni tubaab yi ni dañuy ñi dañuy dee di dekki mu ne su leen a rey biñ demee ba benn bis ñu yéeg ci gaal gi jóge Laskandiriw ak Alverna Serakete ci jant biy fenk sëñ Cheikh Mbacke rek ka fa mas a dem gaynde Fatma waaw noppee joxe si biir see xay gën ñëpp bay maam sëñ Cheikh gaynde Fatma bu daa jël référence door gis kilifa guur yaat bi waaw waaw daa gaa yi taxaw liggéey. waaw ëppale du noggatoo moom sëñ Cheikh. bari ngeen di jëriñ te du tiitaru xam si ki ñu maandu ci moom sëñ Cheikh Mbacke. ku yàlla bind la jàpp du jëw ku yàlla bind sëñ Amidou ku baal la du yàqale li ku yàlla bind ku yàqale la mu muñ ko. ki ko siyaare million ak ki mu jox million bi ak ki gont ñaar fukki junni téeméeri junni ñoo yem xameewu leen am na ku ko mat nii bul joxe te enveloppe del teppi enveloppe bi ko wala ñu xam li ngay joxe mu ni bu ma ko waxaat damaa sant yàlla bi ma yàlla boolewut ci ñuy laaj ki ma jox xam na ko ki yàlla mi tax mu jox ma ko xam na ko xam naa bi moom gaynde faan ma mm-hmm. bëti mérus dama bi juróom benn la mm-hmm. trois yi coupé waa ji téléphoné ko wala mu yónnee ndaw wala mu bind ko lettre mm-hmm. ne ko trois moteur yi coupé la te trois yi mënoo yeggale fan jëm léegi loo wax mënu ko yàlla regalul kenn ba di ko dab ci rëy bi fukk day juróom-ñeent la nga doon yëngal yëngal ko sayo néew ci daal di suunu ci nga naayal naaram nga ne faat ma déparcal bi mu sol moo kayitu tabax yam mën nga jëy bind <laughs> daaj daw ak avion bi ba yegg ñu daayar lu wàcc mhm. mu bàyyi ba ñëpp wàcc waaw sëñ Cheikh toog 14 minutes. ci avion bi ba ñëpp jeex bagage yi jeex. nga defal man ñoom gërëm bi talaax. waaw teel ca ginnaaw di ngaas. Eh, di jëm ca jëwut avion bi ni tëb lépp tàkk. mu jóg ci salle de tente bi gars yi xanaa yaay garaamaara bu Sénégal xanaa yaa moom Sénégal mu ngi dégg ab dëkk fa am ku fa am yaay ak baay ak bàjjan ak maam moo moo dëkk ba wu dee mbaar la nag. gàll ba man gàll laa ca boo xam bu bu bu rëppeloo kenn mënu maa ràmpali maa ràmpali. barke fu sa xam-xam yem ma ñëw fu sa xam yem xam yem fu sa xam-xam yem mu ne fu seen laaj yem. waaw nga Cheikh Mbacke. dégg nga sa mu ne fu sa am am fu ma toll mu fu ma yitte jote ma faj. lu tax foo dem jënd fa muy day bañ kenn tukki ci lislaam tumuranke foo fanaan lu tax foo labbe jënd kër nga jënd kër ci war nga day bañ kéefar yab lislaam lu tax doo ci loxo muy damay bañ moo ci loxo te yàlla ragalul kenn ba dama wut ci loxo faatuma daanoonu jëkkat yi ma ma problème wu lu tax doo xef mu damay xooñ àllaaxira bàyyi àddina lu tax fu jëm sol lu weex mu ne ku xamul sa farata doom xarat keneen ma sol sama càngaay bu ma faatoo jëkk na gaynde faat ñu ne ko kon yaay grand marabout mu ni déedéet du ma grand marabout noppi ak joxe bu gaa yi defar référence ci moom te da caa wax ni as gor day wodd noppi di ku ko war a yeb du ko war a yeb ku ko wut na du ko yeb as gor mbaki bàll xaw naa kii waaye waxtu wi waaw waaw ku jara ku jara bàyyi xel la waxtu wi moo xaw moo xaw a sori man sax damaa bëggoon su ma daan ñu ñaanal ma ma def nii. waaw waaw waaw dinañ dañoo bëgg buñ delsee rek ñaan googu bàmba njëriñ rek. Hmm. loolu dana daal di mën a am waaye dañoo bëgg euh, sëñ Mor Gueye mii. mën a mën a mën a yëkkati xasida su ko defee bu ñu delsee mu door mu door mu door a mën a tëj jotaay bi. sëñ Mor defe naa foofu am na am na micro bu fi ne. sëñ Mor. foofu defe naa am na micro bu fi ne. bàyyi dama ah Ibra Gueye. Baye maa ngi jégalu baax ñu xam naa ñu bàyyi ko rek ndax temps bi mu mën a mën a sëñ Mor nga mën a nuyoo daal di mën a yëkkati xasida ci jotaay bi euh, ñu daal di ñu dellusiwaat ci sëñ Moustapha ngir mën a bu ñu dellusee rek daal di mën a ñaan insha allahu rabbi bisimilah. Mhm. Mhm. ñu koy delloo bu baax baax baax ah, di nuyu mbooloo mi di xamal ne amoon nañu yéene ju yaatu wax dëgg yàlla ngir bis bi ni mu toll fi ak nii nu ko kii nu ko yëgal di suñu doomu ndey alaaji mu Kane yi ak sëñ Mamor ñu waajoon ko lool wax dëgg yàlla ba ànd ak ñi baaxoo àndal waaye xëy nii la ko saa tudde di nuyu Baye Adama saar mii nga xam ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko ñaanal doole maam Seré Fall saa borom taxawu ko li nuyu nag suñu kilifa bu baax gi ñu jàkkaar lool moom sëñ Moustapha Sylla moom sëñ Modou Fallou Fall sëñ Modou Aminta moom boo ko xoolee rek lii Baye Adama doon wax boo xoolee jëmmam rek xam ne Baye Fall la pire boo dara te it jàmbaaram ja sëñ Modou Fallou Fall réew mépp weg nañ weg nañ sëñ Modou Aminta ngir jikkoom nit nag lam taq booy xeeñ loolu la lay xeeñal boo gisee ku yoroo ci kàppa kippaaru sëñ Moodu Aminta sa xel du tudd namm dara sëñ Moodu Aminta la gis bàyyi Moustapha Sylla mi looloo ko dal léegi la ma bàyyi Moodu Kanji di woo naan ma nag ma nuyul sëñ Moustapha Sylla Moodu Kanji sëñ Moustapha mu ngi topp jataay bi maa ngi koy siyaar bu baax di waaw di siyaar maam Cheikh mi ci njàng mu neex mi di nuyu bu baax ñii jóge léegi sëñ Xaadim Jaañ sëñ Mbàkke Soxna Lo sëñ Ibrahima ak sëñ Xadim di nuyu ñii ma àndal amoon noonu yéen ju gën a yaatu waaye xëy na jombul dana gën a yaatu bu beneen rek ko defee euh, ñu bu baax a baax bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliimaa yasuru rasuulallaahi xatiibi mawlidi yaduumu lanaa bishran fi xayri mawlidi يسور رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرا في خير مولدي وخاني إلهي كل در بجاه من loo dahra xatti doona laxwin wa mushidi muhammadu al muxtaaru lam yaati mislo walaysa yaji mislun lahu nicma zaydi maraami min al mawla atani bila asan bijaahi safiir alamiin al muhammadi wasiqtu bi rabbil arsi abdan labi wa maa zaara qalbi bi ridaa saa taxayuni li xayril baraaya min xilaami busaaratun walil xaada taxsiisan bihi nafsu taxtadi daani ilaa ixyaa isaa shahri kawnuhu li xayril wara sarfan hawa kulla suddadi hadiyatuna taswa la dalaayi sarmadan wa ana maa daahin ila xafi siddadi hawa nan taali lxaqi walxaqu diinuna بإقدام شي رشد على كل مسدي إلى خيرنا تنوم مفاسد كلها وتنهى لنا الخيرات من خير منجدي سببت لخير الله ما لم يلخ بي وسبى لخير دهر مولاي حسدي إلى الله بالمختار وجهد مابري عويت سلالا سافيا خير مولدي إلى الله بالمختار وجهت ما به هويت سلالا سافيا خير مولدي دغل الموخ لمود فلولاي نم غني غور ناتي تك بلاي شيخ مودو فالي فال سرين مودو امينة فال baayam ma doon mu boor ya war ca maamamu mu dellu doon mu boor ca baayam boole ku lépp def jaloorey boppam dellu ca naa ko wax nga am cib xam-xam ngir moo du fallu mii surtout ñaari seex laa ci wàllu baay ak wàllu ndeyi noo balla teewul mu bàyyi lépp sos ak baaxam antal kërimu fallu faal mooy yaaram moo yàgg baax faal ku bëgg baax nii lay mel yaa aw ca ngir ma falloo jaddu law sël cheikh Modou Fallilu Faal yàqoo daray cheikh Moustapha Sanda mu yaa yàgg baax faal ku bëgg baax nii lay mel yaaw ca ngir ma falloo jaddu law seen pëndam ba jolli mel ni jundu laaye saa baam yow dar ko fallu faal saa ma Cheikh Moustapha Fall sanc bil daare Cheikh Modou Fallou sanc daaru bayre yaaya ga faal ku bëgg ni lay mel yaaw ca ma faal falu jaddu lawsal saa yu yëngoo faal ñu dar ko muy bandaale jëf ji le wax ko laay liggéey bàyyi naa mbay faal li war ci saw taas nu ni xibaar xajul xirtaas taxawlu naa daam faal li war ci saw xajul ci xirtaas déedéet xajul ci xirtaas jërëjëf sëñ Mor yàlla na suñ borom guddal saw fan daanaka tubaarkàll njàng mi moom ku dégg rek dina dugg ci sa xol directement yàlla na sëñ Tuubaa fay la sëñ Bamba Cuun Mamor nekk fële ci France mi ngi topp plateau yi bu yàgg ba tey nee na nelawul nee na mi ngi lay siyaare bu baax te di la ñaanal nga xam ni moom sëñ maam Mamor moom Cheikh Mouhamadou Mourtala léppam muy jàngatu xasaay di suñu mag di suñu lépp noo ngi koy nuyu di ko siyaar sëñ Mamour Amine waxtu bi nag dañoo dañoo dab waaw damb cuur mais sëñ su Moustapha yaay faalu soxna sëñ Sidi mm-hmm. euh, di di di soxna Roqee Fall Fall baax moom tey suñu xarit ay xéwal suñu xarit ak man nangu naa moom bu baax di ko nuyu uh-huh. euh, sëñ Moustapha mm-hmm. di waxaat Baye Adama mii ak sëñ mm-hmm. Mor Gueye yëkkati xasaayit ak sëñ Moustapha Silmi ak mboole murit nañ ñaanal sëñ Pape Demba Buté fépp foo xamante ne nii sancaani Touba ya courant àggu fa woon ñu ko daan dégg fexe na ba àggal ko fa nun ñi dëkk banlieue Dakar nga xam ni sëñ Moustapha xam na li may wax ñetti fan yu ne coupure day am sañoo jël sax euh, sax ndawal di def ci lu bari parce que leer na leen ni wóoru la ndax Sénégal mais fi mu ne seen xel dal ndax coupure gëj na fa am sëñ Abdou Lahat naga ni woon ku liggéeyal murid yi sëñ Touba lay fay ku liggéeyal sëñ Touba murid yi fay na daal ne Abdou Diouf boole na ñaar yëpp moom na defal na loolu parce que Masaalikul Jinaan taxawaayam li ci jëwriñ sëñ Mbàkke yi fay seere doy na sëkk kon na ko ñëpp ñaanal mu àggale jàmm kóolute gii ko président dénk parce que président xam na lim ko dénk doxee na ko courant beneen affaire la courant mooy lépp courant tey moo téye hôpital yi moo téye lépp courant mooy lépp kon nag nanu ko ñaanal euh, fii mu jële Senelec ak fi mu ko yóbbu yàlla dolli ko ci ay xéewal ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul soxna maam Faati Fallilu euh, sëñ Moustapha waaw maam Faati maam Faati Moustapha mi ngi ñuy topp moom nag murit la moom moom moom émission yi lu ci lu ci nekk rek xam na ko sëñ Moustapha am ku ñuy wax sëñ Bamba Kan maître euh, professeur Bamba Kan ministre sëñ soxna Ndey Faatu da koy invité toujours nee na mi ngi topp jotaay bi te it nee na lii nga xamante ne sëñ Pape Demba def na ko ñoom la ko defal ndax ñoom produit Serigne Touba la kon loolu aussi noo koy ñaanal baax a baax ci barke Cheikh Mamour loolu kenn ci tegaat dama safa euh, waa bi moom xam naa ñi ngi ñii kii wax nañ dëgg ndax trois heures mooy kat vingt trois heures lañ tàmbali loolu daanaka mat na quatre heures de temps neexaay bi nag ak wax ji day tax doo xam waaye li tax ñuy gën a sax mooy bu ñu defee émission bu mel ni soo koy tegaat dañuy faw ñu xool temps boo xam ni buñ koy tegaat mu mën caa mu mën caa xaj waaw kon euh, sëñ Moustapha xam naa li ñu amoon yéene nga wax ko yëpp dañ lay bàyyi rek kàddu yi ngay wax nga tàggatoo waale ci bàyyi dama tàggatoo rek sëñ moor moo ñu koy tëjal bu ñuy yëkkati jotaay bi mu mu daal mu daal di mën a jeex kon sëñ Moustapha si ñaari minute rek mu jeex woo. li ma waxoon tàmbali rek déglu sëñ Adama mooy dàqal wax ji. Euh, dama am ñoo xam ne dama leen sant bu baax ndax booba te ñu may woo rek maa ngi jiite sëñ Omar Kane Balaay sa nee ma maa ngi de sëñ Adama sëñ Adama sëñ Omar Kane Balaay sa ngi leen nuyu bu baax. Eh, ceek eh, sama benn xarit boo xam ne. waa Canaba lañu ko sëñ Ibrahima Seck. doomu xalif général Canaba. dëgg la nee na ma télé bi maa ngi ko xod. ndeysaan dëgg la nee na ma léegi sëñ Moussa daal. Mhm. ñu daal xam ne daal. gaa yi wax Baye Fall ay Baye Fall duñu benn. waaw te sëñ Cene ah sëñ Cene Baye maamam. sëñ bi lay saar bu baax sëñ Mortaala Ndiaye ma nga ne ca tey ca Daara Jolof. ak mboolem waa MSD yëpp ñu ngi suivre affaire bi. Euh, sëñ Arma. Mm-hmm. Euh, daa bëgg nga ñaan doole Cheikh Ibra jotaay bi yàlla bu mu doon suñu mujj dataay. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi nañ ko def ay yoonu yoon. te nga fekk ko ñu fekk ko. amiin ak mur yi yëpp. amiin tey li ma gën gënoon sax mooy toog li déglu. dëgg la. ndax ñun Cheikh Rafaal rek la wut. Mhm. ak fu ko def. te ñu mel ni yow dañoo baax ci suñu classe gii ndax Cheikh Ibra kenn waru ko fay. te exemple bi mooy yéen ñu mel ni yéen rek li nga doon wax sànq ñi xamuñu ko maa ko xam tund tund jandeer moom la nga fa xam waxoo xat waxoo asaka ji ak la ko wër la mu wax foofa njar la mu fa wax wax la mu fa xam waxu asaka ji maag alaaj sekk jàngkat dañ daan ànd ñoom guddeeg bëccëg kër yangaan saar la dëkk ca Touba Toul def maa ñaañ kese ma mitaat bajaan ñëw Touba kër dof mbow jox jëm kër Baay Touba Fall Tiwaawan ak soxna Mam Faati bi suñu bési fa alxuraan bi mu màggal ñii ko sos dana ko juróomi at doo ko jox suñu bés alxuraan kon ñii e exemple lañ ci yoon wi ñu am solo lañu kon nañ ñëpp ñaan ñu yàgg fi li nga wax léegi rek ci ci ci ci ci ci guerre bi daam lu ci maam seetal dala wax benn baat boobu laa ci dolli tëje ko maam seetal nee na dañoo ñëw njaareem jóge ci es tuxu si njaareem moog Seex Ibra tàkkusaan Seex Ibra ne leen fekk am na benn ku mel ne sañ yaaram mbay ak ñoo ñu demoon ca guerre ba si arafaan ne leen keroog ba almaa bi bënnee seen gaal gi suba ngoon te gaal gi diigut xam nga leen taxoon diigut ndax gaal gi murid yi nekkoon bi ne ci biir géej gi suba mare bi da ko bënn suba ba ngoon gaal gi diigut si arafaan ne leen seen col gaar ga ba nga ca demee ba almaa ba bënnee seen gaal ga soo ba ngoon xamal lu dox diigut ñu ne ko déedéet faal mooy leen sëñ Bàmba man ca bopp ba mën a ca geen ba moo tax diigut kon kon fi ma daanele mooy sëñ Moustapha sëñ Mbàkke yi ñu ko sant bu baax dëgg la li nga junjoon sànq damaa jite benn kuréel bu ñuy wax MSD mouvement Sénégal pour le développement mhm. trois cent quinze mille membres lañu trois cent quinze mille mhm. maa leen jiite ku ne ngi ci nag li Moustapha wax mhm. sëñ Mbàkke yu lii mu def ci réew mi waxuma mu rëdd waaye ku mhm. ku nite dëkk ci réew mi war cee dugg sa loxo dëgg moo tax yoo xam nga ne am ñu ñëwoon fi man bëgg def man convention partenariat may leen déet bu fekkee li sëñ Mbàkke yor loolu la ñu yor ke du ma ko def ak yéen daal lay woo bu fi yàlla bàyyi le 18 bii ñëw laa war a signé convention bi te incha bi dinaa ko plus de 400000 personnes 400000 personnes dinaa ko dugal ci dinaa ko dugal ci Promovilles waaw 400000 personnes lu ko ëpp. kon sëñ Mbàkke yu sant ba loolu na xam naa bëgg naa buñ suñu defee convention bi ñu am beneen jataay gën ko mën a yaatal ñi sant murid yëpp di ñaan ci barkeb Serigne Touba Cheikh Ibra sëñ Cheikh Jëmb suñu borom yàggal ko fi jërëjëf suñ fa suñ Moussa Mbar ak murid yëpp mhm. bak si Moussa mu Njaay mhm. mhm. yëpp di sant sunu waa quartier Maam Jaara ñu ngi toog ba léegi nag guñu sama waa kër bopp gi ak wëllëri yi ak euh, soppe yi yi ci biir xam ndax damay bañ tudd tudd ma diw tudd ma diw tudd waaye ñu ngi gërëm ñëpp loolu sëñ Moussa si la wax ci mbakk yu loolu rek ak yow moom mi ak Mamor mi ñun ñëpp xamante ne noo dend ay dëkk euh, sëñ mbakk yu li li ñëpp doon ci suñ tuwaay ak loolu la ci doon door a doon la suñ tuwaay jox ko ndax waajur mu góor Cheikh Rafal ko tudd tudde ko boppam am na mu mag moo xëy daa masa jàll ni Cheikh Rafal damaa defoon danga ma naan li des ngoog mu tudd bàyyi bi Ibrahima Faye mi tudd jur sëñ mbakk yu ne ko waajee seenoo pëndam ci yàlla teexu koo bajantu yow da ngaa yor biirub ganaar ñaari ko bépp xaju ci kon sëñ Moussa yow it ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal la te maison bi ngay daw di ko dox. yàlla bu mu laatoo ci yow sëñ Moussa nag Cheikh Fall danoon ab sàmm li ci baax doo ràññ doo ruural doo wàññi rat doo laan yàlla nan dal dal la soxna yi yéen ci ginnaaw ñu ngi leen di gërëm te di leen seen mbooto di jàmm seen njaboot ngeen fekk njëriñ yi ba lu ngeen bëgg ngeen am ko ci ku ci sëriñ ngeen juboo te mu bari woon la jox eh, ku ci amul nga am ko ku ci am ay doom yàlla na la fekk loo njëriñ li ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant wëlër yi ndax lu ko bàyyi Moussa wax woon ci wur bu njëkk ba diggante Lamp Ndour Baye Touba Fall Xaban Sall Cheikh Awa Balla Joxaane Ablaye Faye Bolom 313 taw fatu Moussa Gueye Faw Seyni na Diop e mag ñi daal ñu ngi leen di yërëm daal te leen gën eh, jërëjëf Baye jërëjëf sëñ Moustapha mu mel nii ni e, Badiya Jouer suñu nijaay donc nuyu di ko siyaare bu baax mu ngi topp jotaay bi ñu tàmbalee ba léegi bokk ci kilifa yi nga xam ne ñooy jiite ñooy eh, wéttali jëwriñ Alaaji Mbàkke yu ci Masaalikul Jinaan di ko sant di ko gërëm sëñ Babacar Mbeng mu sëriñ Saalihu Mbàkke noo ngi koy sant mi ngi doon topp jotaay bi boobu ba léegi soxna Fat Seen sunu yaay nekk fële ci Sikam Mbaaw noo ngi koy nuyu di ko ziyaare ajaa nday ami kase mu baax moom sëñ Tuubaa noo ngi koy nuyu di ko ziyaare bu baax a baax mu mel ni eh, xam naa waa régie sëñ Maamor sax mi ngi may wax soxna Nday Faatu pour ñu bàyyi ko benn minute mu commentaire li nga xamante ni mooy YouTube bi ak yooyu waaye xam naa waa régie bi moom ñi ngi ñi ngi wax ak man noo xam ne xam naa waxtu wi dana ko def beneen yoon rek ndaxit comme 3 heures de matin jot na bu ko defee bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu dellusiwaatee rek bisimilah kon soxna Ndeye Fatou ñu ñu bàyyi la benn minute nga résumé ko ñu door ñu door a ñaan bisimilah. waaw jë jërëjëf euh, sëñ sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Mamor. waaye euh, waxtaan bi moom xam naa ne dafa euh, mel noo xamee ne tey ah, ñëpp a daanu waaw ndax internet yi yaakaar naa lu ëpp ñaari junni ñu ngi ñuy seetaan à travers le monde ñi seetaan nañu waa Chine ku mel ni Kunta Ndiaye mi ngi wax ne moom mi ngi ñuy seetaan Chine rapidement rek xam naa ne comme euh, waxtu wi jot na maanaam émission bi àdduna bi yëpp seetaan nañ ko am nañu lum ëpp ñaari junni doomu aadama seetaan nañu ko ñoom ñëpp ngi ni duñ leen mën lim waaye en tout cas nee nañu daal euh, ñi ngi ñaanal euh, sëñ aadama awe na lool waaw kawe na seen jot